آمين يا رب بحرمة النبي والخلب مني كل ضر جنبي وليحقق الرجاء الدهر وليشكر السر به والجهر yéen mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar ci barab bu tedd bii ci weer bu tedd bii di weeru koor di weeru alquranil karim di jiital ci nuyoo bi kilifa gi yoonu murit muy sëriñ muhammadul muntaqa di ko ñaanal suñu boroom mu guddal fanam dolli ko gu ba mébét yi nga xam ne am na ko ci lislaam ji suñu boroom may ko kàttan ba mottali ko ci barkeb sëriñ bi di nuyu ba tey waa daairatu muxaddamatul xidma ñi nga xam ne seen taxawaay taxawaay bu rafet la muy sàmm ndonol sëriñ bi ci dundal xam-xam ak toppatoo barab bi nga xam ne bokk na ci barab yi ko gën a ñor ci njiital sëriñ Xaafiya Buso ak mbooleem ñu ko àndal tey nag mbokk yi niñ ko baaxoo defee weeru koor wi bés bu jot danañ jàngat ay bind yoo xam ne ñuy soxal na diine buñ nee soxal na diine rek mooy soxal na société bi soxal na pàcc yépp ci dund gi tey nag muy thème boo xam ne nii bu mat a waxtaane la muy alxitaabu diini bayna alwaaqi wal ma'muul muy kàddu diine fi mu toll ak fa mu waru a àgg muy le discours religieux wala nga ne la communication religieuse entre réalité et perspective muy thème boo xam ne ni bëri na lu mu làmboo te waxtaane ko jot na bëri lënt yu ci dinni ak luñ ci war a leeral thème bi nag ñu fas yéene koo ànd ak sëriñ Mouhamadul Fadil Bousso moom sëriñ Assane buso moom sëriñ Mbàkke buso loolu rekk daanaka doy na tawarif ci ne ci ëttub xam-xam la jóge kuñ miin ci jataay yii la école Azhar bi ñuy wax excellence moo nekk ca bopp ba kon ci tool bii lay yëngu ba tey tem bi nag solo si foo ko takk weesu na ko muy fi kàddu diine ji tollu ak fa mu war a àgg kon am na fu mu tolloon démb am na fu mu tollu tey am na fu war a tollu ëllëg ndax fi mu tollu tey jii baax na wala bu dee baax na manees na koo yokk ak lañ lañu séentu ëllëg ak kàddu diine buñ ko waxee kan moo ko war a porté kan moom lañu moomale kàddu googu kan mooy kilifa diine ndax ñun niñ koy déggee ci suñ jamono jii la walla lislaam am na ci ba niñ déggee loolu tamit des na ko leeral waaye nag dafa am xam-xam bu bees buñ naan communication boo xam ne ni dafa fees dell ci biir thème bi te ñoom ñaar ñoo bokk jubluwaay ndax dañ naan kàddu diine naka jekk ba lislaam sosoo ba nii dafa ànd ak moom kon lislaam moo ñu koy jàngal ndax dañ naan diine ji lépp xiif yi la maanaam dañu koy jàngal ne ñun nii la kon boo ci dollee dara rek tuumaal nga ko boo ci wàññee dara tamit ayibal nga ko kon loo ci war a def danga nga ko war a beesal beesal nag bu ñu ko waxee dangay ngay bàyyi xel jamono ji ngay dund ndax dañ naan xitaabu diin yi discours religieux kàddu diine ki koy porté mooy nitug diine nitug diine nag bu ñu ko waxee mooy ku am xam-xam te di ko jëfe kooku mooy nitug diine kon loolu leer na kan lay waxal ñu ne ñaare de kooku buy wax ñett yi lay bàyyi xel am xel moo xam ne nii bu waxee mu mën koo xam ak xol boo xam ne nii dana ko mën a nangu ci ak cofeel ak yaram woo xam ne nii dana ko aajowoo loolu mooy lan mooy ki ngay waxal war ngaa natt xelam ba xam ne lii nga koy wax war na koo mën a xam dégg ko kon war nga koo sukkandikoo ci xam-xam boo xam ne ni dana leeral am xelam ñaareel ba nga wax ko loo xam ne nii njariñam dana ca ne ba mën koo dégg kon dangay bàyyi xel njariñam moom li muy dund ak li ko wër baneen ba mooy yaramu boppam li muy aajo aajowoo ci teraanga ci honneur ci yi mu aajoo ci dundu boppam ci bés bu set yooyu lañ ko war di bàyyi xel kon nitu diine giy wax ñett yi yépp war na koo bàyyi xel loolu lan lay tegtale loolu day tegtale nitu diine buy wax xam-xam ba war naa xóot waaye nag la ko wër la dund lañuy nekk war na koo xam bu wér ci wàllu politique wàllu société lan mooy seen culture ñi muy waxal ndax bu ñuy wax ñun waxuñu waa Sénégal rek bu demoon faneen tamit di wax war naa mën a xam ñii lan mooy seen culture fan la seen mentalité toll xam naa damay laytaayal sëriñ bi bu ci ñëwee dana ko gën a leeral buñ paree luñ ci mën a def ci ay commentaire ñu commenté ko waaye li tax ma doon wax xam-xam bu bees muy communication communication dafa nekk lu yàgg loo xam ne ni yàgg na fi waaye tëraluñ ko woon ab xam-xam boo xoolee jamono yi 1963 la ko benn américain conceptualisé muy ab xam-xam boo xam ne nii des na ci mën a tegtal ci xam-xam yu bees yi waaye nag fekk alxuraan wax na ko bu yàgg wala xad wassalnaa lahumul qawla la'allahum yatadakkaruun boo demee ci tafsir dañ naan la wala xad wassalnaa lahumul qawla duñ du doo firi firi mii rek ne àggale nañu wax ji jëm ci ñoom waaye ak jokkaloo da cee am kon du da ngay jekki-jekki rek wax ji nga sànni ko nit ñi te aajoowuñ dangay xool kem seen aajo nam toll nga koy indee noonu ndànk par ndànk di bàyyiwaale xel ñoom ñooy ñan yan xeeti nit lañ ak lan lañu dund mooy xam wala xad wasalna lahumul xawla la'allahum yatadakkarun kon kàddu diine lu foor la loo xam ne nii mën naa defar waaye mën naa yàq kon jot na ñu waxtaane ki ko war a mooy kan yan jikko la war a am ban xam-xam la war a am ñi mu koy waxal tamit nan la leen di bàyyee xel ndax communication dañ naan la dafa am juróom benn poñ yoo xam ne mënu cee ñàkk pour li ngay wax am njariñ yu dégg bu njëkk bi mooy l'émetteur ki nga xam ne wax ji ci moom lay jóge mooy kan sëñ bi dana ci ñëw le récepteur ki nga xam ne mooy diglu wax ji kan la ñu ne ak lan le message li nga li nga ko bëgg a wax mooy lan loolu du lu ne nga ko war a wax li nga ko war a wax mooy lan ak lan ñu ne la contexte mooy ñi ngay waxal yan xeeti nit lañ ak li ñuy dund ak jamono ji fu mu toll waaye ngay ñëw wax wax joo xam ne jamono dépassé na wala àgguwuñ fa wala waxoo par rapport ak seen yitte ak seen aajo loolu du xibaab diini ak lan la contact mooy lan moo leen jokkale lii nag day ñëw ci thème bi ndax li ñuy jokkale ak nit ñi léegi wuute na ak la daa jokkale bu ël bu yàgg ndax léegi technologie bi bees na am nañ Facebook am nañ YouTube am nañ TikTok am nañ yeneen xeeti xarala yoo xam ne nii kii wax war na koy bàyyi xel ngir ñam intéressé mu mën leen a jël du kon na nga daa waxe rek ngay waxee faaw nga sol bu mujj bi mooy li ñaan le code am na màndarga yoo xam ne war nay feeñ ci yow miy wax ba ki lay diglu mën koo comprendre lii moom la wax ci wàllu communication les six éléments inaliénables mooy yi nga xam ne juróom benn poñ yi nga xam ne kuy communique faw nga yor ko pour la ngay wax ñu mën koo dégg lii nag génn diine kon nag ñi ngi tatagal sëriñ bi mu ñëw fas yéene koo traité ci poñ yi ñuy wax mooy bu njëkk bi sëriñ Fàllu bu ñëwee dana lay taay bi muy fi kàddu diine ji toll ak fa mu war a àgg ëllëg bu ko lay taayee ba ñëpp xam fi mu jëm dana ñëw nag wax baat yi nga xam ne am na ci li muy waxtaane te nit ñi di ko jëfandikoo te xamuñ mooy lan mu daytal ko gën koo leeral ba nit ñi xam mooy lan ba bu duggee ci waxtaan yi baat bu mu ci tudd rek ñu xam ne lii lañ jublu bu paree ci loolu nag sëriñ bi dana ñëw ci kàddu diine gi fi mu toll nii mu jàngal bu paree ci loolu dana ñëw ci kàddu diine gi ñuy séentu ëllëg fi mu war a toll moom it dana ci joxe ay jàngat xëy na ak i solution ak i perspective baneen bi nag mu ñëw tëj wax ji ak liñ ci jàng lépp incha allah kon daal muy thème boo xam ne ni thème bu am solo la boo xam ne ni lu defaru moo ko defar lu yàq moo ko yàq waaye lu defaru moo ko defar ci kaw buñ ko joxee ñu ko man yeyoo ko te am xam ba lu yàq moo ko yàq ci kaw buñ ko joxee ñoo xam ne ni dañuy tuddee seeni bopp na nitu diine te lislaam tuddiwu leen ko ngeen ànd kook seen mbokk Baye Dame Mbaye Longhor ñu ngi leen sant bu baax te di leen gërëm jërë ngeen jëf bisimilah sëriñ auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñuy dégg ñu ngi tàmbale suñu kàddu ci ndokkeel mboolem jullit yi ci njeexteel weeru koor mi ñu nekk ziar ñëpp waaye ndokkeel ak ziar bi al xalifatul am li murid ni Cheikh Mouhamadou ñaanu ko sunu boroom jàggal ko fi te mottali ko ay naalam di la nuyu bu baax sëriñ Baye Daam ci li nga waxtaan wi ak am solo yi nga xam ne ni jot nga ko dugal ci biir waxtaan wi ci di ñaan ci barkeb barab bi ñu nekk nag ak barkeb bis yi ñu nekk te mooy bisi weeru mujj ci weeru koor mu ñaan sunu borom dagaan ko mu yaata jàmm ak kaaraange akuk dal ci àddina bi yépp rawat na réew yi nga xam ay jullit ñoo fi dund waaye rawat na sunu réew di Sénégal ñu toll ci jamono joo xam ne yaakaar naa ne ku nekk ci àddina bi ak foo mën nekk fi nekk nii soxla nga ñaan bu mel noonu ndax yëf yi jax gi ëpp na jaxasoo bi tam bari na lool yëngu-yëngu bi tam bari na lool ñu toll ci waxtu woo xam ne nii bokk na ci liñ koy xàmmee mooy xiiroo ak ŋaayoo xëccoo ci diggante mbooloo ak mbooloo maanaam ñu dëkk ci dëkk ak ñu dëkk ci beneen dëkk ñu dëkk ci réew ak ñu dëkk ci beneen réew xëccoo yi bari na seen biir waaye boo demee ba ci biir réew yi diggante benn benn yi nit ci nekk ci biir réew yi ñoomit it xëccoo ba fes na ci ñoom ñu dem sax ba ci ñu bokk jenn diine te mooy diine lislaam xiyoo boobu ak ŋaayoo boobu ñu koy seetlu ci seen dundin ak seeni doxalin ñu gis nag ne buñ doon xool sabab bi dëgg-dëgg li cëpp boo koy xool dafay dellu ci kàddu walla baat yoo xam ne nii wax nañ ko fii walla ñu wax ko fële te waxuñ ko ci barabam bañ ko war a waxe walla boog discours boo xam ne nii joxe nañ ko fii walla ñu joxe ko feneen te nekkul discours boo xam ne nii jàngat nañ ba mu xereñe bala ci war a nekk nekk ci mat gi mu war a mat mu mat ko ñu gis nag ni kon jamono ji màndarga mi ci ëpp solo mooy jamono yi wax la wax ju bari ba léegi sax dañuy gëm loole ku waxul bootul da ñàkk sab cër maanaam ñuy wax danañu wax ba yóbbaale sab cër loolu nag moo ñu puus ñu bari ci ñun xëy na ku nekk def li wolof di wax daas saw làmmiñ ba mu ñëw lool lu sa yoon nekk da nga dugg lu sa yoon newut da nga koy wax léegi xàmmeetuñ kan moo war a wax ak ci lan lay wax ak fan lay wax la yokk ban bi tooyaay nag mooy toj wala xar gi nga xam ne nii xam-xam xar na ko muy explosion boo am na ci wàllu connaissance yi ak xam-xam yi nga xam ne nit daana ko am ñu gisit ne léegi wax tasaare ko dafa yomb jumtukaay yi nga mën a jëfandikoo tasaare wax dafa yomb lool te am na ci yoo xam ne sax du la coûter dara maanaam doo ca fay dara te muy gaaw lool kon wax ji bari na li koy tasaare yomb na te xamuñ ñi ko war a wax ngi koy wax fañ koy war waxe ndax ña ngi ko fay kon njàmbat li xaw naa bari jamono ji fi mu ñu bari dañuy jàmbat ne léegi wax ji daa bari waaye dañuy saxal ne ci njëlbeen ne ay doomu aadama fu ñu daje dafa am yoo xam ne nii mënta ñàkk seen biir te mooy bokk na ca lu mel noonu jokkalante ay kàddu wax wax li muy bari bari ay jafe-jafe su amuloon ci biir dund gi dundin doomu aadama yi du mën a sotti ndax moo nuy jokkale mooy tax tam ku nekk la ngay xalaat nga mën koo jox sa morom moo tax bàyyi daam ñëw na ci léegi lépp loo gis mu baax wax dugg na ca biir wala ba wax bokk na ca la koy baax waaye li yàqu ci àddina bi lépp nag tey yàq nag loo ca gis tam ay wax bokk na ca la koy sabab dugg ci biir moo tax dañuy faral di nettali ci misaal rek moo xam ne ci mis ab jàngale la dañ naan wax dafa mës ñëw ci barab jooy ñu laaj ko ne ko lu lay jooy lool mu ne dañ maa wax ci sama jamono jotul wala boog dañ maa wax ci foo xam ne waruñ ma faa waxe loolu moo ko naqar woon ban koy jo ba muy jooy xay nañu ñu nax ko ba mu noppi ba mu ñëwaatee jooyaat beneen bis ñu laaj ko lu la tax di jooy mu ne dañ maa wax te fekk ne wax wi ñu ma war a waxee weesu kon wax ju nekk am na barab am na barab waaye tam am na waxtu woo xam ne ci lañ ko war a wax su weesoo nag wax ga mën naa indi loraange fu ñu ko waxee bu ñu ko waxee fu ñu ko waxee tam nag wax ja naa indi loraange kon wax mooy fi ñuy taxaw ngir mën a joyant ngir mën a defar waaye itam ku bëgg a yàq ku nekk yaa ngi sukkandiku ci wax ngir mën a yàq moo tax kàddu mi ngi mel ne balu fetal rek bal bi moom balaa nga koo tiire mën ngaa jël say matukaay yëpp xëj waaye nag boo xasee tiire moom ba mu boy ba génn ci fi nga koy tiiree moom loolu rëcc na say loxo mënatoo ca dara moo tax wax ji tam balaa nga koo wax mën nga koo saytu mën nga koo téye waaye nag su xasee génn sa gémmiñ moom wax ji moomatoo ko te mënatu caa soppaxndiku ci jamono yu baree bari moo tax ñu daan jàngale ne wax di bu fekkonte ne xaalis la noppi moom boobaa wurus lay doon ni or féetee kaw xaalis dañuy wax ne noppi léeg-léeg noonu lay féetee kaw euh, wax ñu xamit ne nag baraana lool nit toog di réccu ci loo xam ne nii moo ko wax waaye nag néewaa na nga gis kuy réccu loo xam ne wax ko maanaam li ngay li ngay wax li ngay ngay wax ba noppi réccu la nga doon wax moo ëpp li ngay noppi ba noppi réccu la nga doon noppee xëy nag léeg-léegi nag dina am barab yoo xam boo fa noppee am nga waaye fii moo gën a néew lañ ko fay def moo tax kon wax mu ngi mel ne garab ay médicament ay doom yi ngay naan dañuy wax ne doom yi bu fekkante ne la nga ca war a jël rek nga ci jël jël ko ci waxtu wa nga ko war a jël mën naa am dana la jariñ lam la war a jariñ waaye soo jàppee ne baax na ba nga jël ci ëpp wala waxtu bi wax nga jël ko jëloo ko jël mën naa am loraange ju ëpp mu loraange ju jur moo ëpp lam lay jural ci njariñ moo tax dañuy laabire ku nekk ne ko baat bu mu mënti doon bu ko xeeb lu mu tuuti tuuti balaa nga koo génne sa gémmiñ nanga ko ci wëndeel mi yoon yu baree bari segg ko seggaat ko xool li ci mën a juddoo ak li mën a jur ak la ci yëpp nga natt ko ba noppi nag door koo mën a génne ndax kat am na xatar danger bu mag bu ne ci wax te nag xatar jooju nag day yokk lu mu gën a tasaaroo rek mu gën a xatar jooju dafay gën a yokk te suñ daam ñëw na ci léegi jumtukaay yi maanaam lu ñuy wax média wala boog moyen de communication yi nga xam ne nii léegi tasaaroo na lool mooy jumtukaay bi gën a solo bi nga xam ne nii moom la ñuy jëfandikoo ngir tasaare ay wax moo tax jumtukaay boobu am gu mu am doole moo tax dañ koy boole ci doole yi nga xam ne ni état mooy ngànk état soo jëlee doole yi président te mooy exécutif bi nga jël doole yi ñuy yoonal te mooy ñu nekk ci parlement bi wala boog nga jël doole yi ñuy àtte muy ñu nekk ci tribunal ak mel noonu dañu wax ne ñeenteelu doole ji mooy li ñuy wax jumtukaay yi ñuy jàllale ay xabaat wala boog média léeg-léegi sax nag mën nañu wax ne mooy doole ji si njëkk ndax yeneen doole yëpp moom dañ koo ragal ndax maanaam lu ne ci moom nekk nii ngay gis yëpp gars yi bare bari li ñu am am doole liñ gën a ragal mooy presse presse bi moom ñu baree bari dañ koy moytu kon day mel ne sax yeneen kattan yooyu pouvoir yooyu ñoo ko jiitu waaye moom moo leen ëpp doole ñu gis nañ ne jumtukaay yooyu léegi tasaaroo na ci àddina bi lool am gi yomb lool taxawal gi tam jëfeetut nam jëfee woon moo tax bari bu mu baax nag moo tax ku nekk ñoom soo xëyee dañuy njëkkante yaa ngi dox rek gis ku wax lu rëy rëy aw tojaanga ba nga njëkk caa jot njëkk ko tasaare ngir wane ne lii sama exclusivité la wala boog maa ci njëkk a jot nga gis ne itam dañuy wër mbedd yi booy dox da ngay tase ci mbedd yi ku nekk yaa ngi ak sa micro micro bi ku la neex nga tàllal ko koo njëkk a jot rek mën nga koo tàllal bu dee ku xamul nag la nekk ci gannaaw micro bi mën naa wax ba wax loo xam ne nii damay yàq mooy ëpp doole la muy defal gannaaw mu nag mbir yi foofu la toll te wax ji bari na te li ci yàqoo bari na lool kon ñun liñ ci war ci njëlbeen mooy nu fexe ba ñun tam ñooy nga xam ñooy askan wi ñu fexe luñ man ci jëf ba suñuy jubluwaay nekk benn ndax suñuy jubluwaay bu nekkee benn rek suñu kàddu mën a daal nekk benn waaye su jubluwaay nekkul benn kàddu yi il faut que muy bari te day wuute kon toog naan da ngay jéem a tëj gémmiñu nit ñi ak loo mën ci am ci doole ak loo mën am ci kàttan bis boo jàppee ne mën ngaa fexe fexe ba tëj gémmiñu nit ñi ba kenn dootu wax wala mën ngaa fexe ba bu ñu waxee wax ji du saaroo loola dangay mel ne kuy wal ci ngelaw danga nga sonn te boo wutul du la amal njëriñ kon fexe ba ñu gëm ne ñun danoo bokk fuñ jëm te ñu ñëpp ñu xam ne bokk fuñ jëm te xam fañ jëm loolu danañu dimbali ci ñu mën a benn suñu kàddu te suñu kàddu nag bu benn rek bu nekkee benn la muy yàq mën naa néew lool waaye nag tëj gémmiñu nit ñi moom ak kattan gu la yàlla man demee ci àdduna bi fi mu nekk nii yàlla mayeetu ko kenn moom ci kaw àdduna te it tasaare wax ji moom fi mu nekk nii yomb na yombaay boo xam ne nii boo tëjoon rajo yëpp ci àdduna yëpp am na yenn jumtukaay yi ñu jëfandikoo yoo xam ne nii sax booy xool moo gën a gaaw rajo yi ngay tëj ak tele yi ngay tëj kon gi muy kaddu diine ji wala boog kaddu ci tënk wala boog discours bu mën ci doon ci ñaari dégg yi nga xam mën nañ ko ci am ci njëlbeen te mooy bataaxal bi wala boog contenu bi nga xam ne nii moom la wax ji làmboo léeg-léeg ñu mun ne loolu mooy discours wala ñu ne mooy kàddu gi nga yëkkati ngir jàllale ngir jàllale contenu bi wala boog lam làmboo ñu ne ba tey loolu mooy discours kon ñaar yëpp dafiy ñëw waaye boobu ci ban di doon boo xoolee li bataaxal bi làmboo ci biir ak wax gi ñu koy wax ak ni ñu koy waxee ci jamono ji ñu toll nii da nga gis ne. bari na luy xew ci biir jullit yi te mi ngi déparé ci loolu men benn mu nekk ci contenu bi nga xam mooy discours bu ñu yore la ne ca biir wala boog niñ koy jàllale ci kàddu ñaar yooyu bari na lu ñuy jur ci ay wuute ci ay xalaat ak i ci biir jullit yi wuute ci xalaat ak gisin nag du lu aay waaye fa muy aay mooy bu demee nag bañ àgg ci weddente publiquement ñu taxaw nga sa morom wax nga taxaw weddi taxaw ci média wala nga taxaw ci fu ñëpp di gis ñuy jokkalante ay kàddu yu ñagas yoo xam ne nii warta am ci diggante ab jullit ak morom ja loolu lépp xëy na contenu discours yi ñu yore ak niñ koy waxee léeg-léegi mooy jur lu mel noonu loolu nag li ñu juróon ñun jullit yi mooy dañoo dem a dem ba xëy ba te mooy raglu gi ñu amoon ba ñu baree bari dañu bàyyi xel am yu baree bari yoo xam ñu muy tuncaa àgg ak ñun raglu googee moo commencé di raxasu ndax wuute gu ñuy wuute suñu biir ak ku nekk di wax léeg sax xasante di ci dugg moo ubbil buntu katam keneen bu ñu keneen ki li muy tekki mooy ki nga xam bokkuñu ak moom pas-pas moo ko ubbil bunt ngir mu mën caa jaare ba la mu bëgg a def ci biir jullit yi moom mu mën koo def ndax gis na ne wuute nañ te wuute bu xasee am rek yow mi bëgg a yàq mën nga ca daal di potoxlu daal di dugg ci biir def li ngay def te sax mën naa am léeg-léegi kooku bu ñëwee su mbokkum jullit nit ñun moo koy jàppale ngir moom mu teg tànkam fu ngir mën a def la muy def lu ko waral mooy ne suñ bokkum jullit moomee xëy ne discours ba mu yore ak ñun discours bu mu yore wuute guñ wuute moo tax moom jàppale koo xam ne nii bokkuñu pas-pas sax ngir mu mën ñoo faagaagal moo ko gënal mu jàppale ñun ñi nga xam ne ñi ñoo bokk diine donte wut nañ ab discours bu ñuy jàllal kon foofu ci lañu gis ne kon nag taxawaat defaat jàngat ci discours yi nga xam ne ñu ngi koy dégg ñi koy joxe ci yenn barab yi ak yenn ak yenn waxtu yi ak xew wuute defe naa ne waxtaane ko dana am solo lañ koy jublu tam weesuul soññee ak yeete ak waxtaan ak nit ñi bañ xam maanaam jafe-jafe bi nga xam ne nii kàddu mën na koo jur kon nag discours yooyu discours yu bari la xëy ne daañu ci tuddat yéen ci kanam tuuti waaye discours diine bi moom ci la bokk mooy discours bi nga xam ne nii mooy doon kàddu diine kàddu diine googu nag moom bu nu koy xool wala boog lenn ci kàddu yooyu dañ ci gis lu leer nañ ñi ne gisiin wu xat day feeñ ci biir kàddu googu gis-gis bu xat maanaam tënk sa bopp ci maanaam kutubal bu xat lool day ciy feeñ léeg-léeg te mooy sa xalaat ni mu war a koy def léeg-léeg du ubbi noonu léeg-léeg itam daañu ci seetlu ne langage bi ñuy jëfandikoo te mooy ni ñu koy waxee style bi ñuy jëfandikoo léeg-léeg ak tar bu méttee métti daf ciy feeñ moo tax bu ñu doon wax koon réalité bi nga xam ci la kàddu diine ji toll ci jamono ji ñu toll nii ci li mu làmboo ci biir en tant que ab bataaxel waaye tam façon bi ñu koy joxee ni ñu koy waxe ak ki koy wax ci boppam kon bu ñu ko jëlee dañuy gis ne ñett yëpp bu ci nekk dafa toll ci diggante bu xat bu jafe mën na ne wax ne ci crise sax ci la toll nangu nañ ko nag ne xam nañ ne wala boog nangu nañ ne am na yenn kàddu diine yu jóg yoo xam ne ni wax dëgg yàlla mel na na mu war a mel te mën naa am ma ngay jógee fa mu war a jóge ñu koy wax wax ñu ko war a waxe waaye nag bu ñuy waxtaan dañuy xool di gën a not di gën a not moom mooy ne ñett yi ma wax foo ko xool da nga gis ne am na jafe ci biir muy lii wax ji làmboo ak niñ koy waxe ak koy wax ku ci mën di doon boo ko jàngatee da nga gis ne am na ay jafe-jafe yu ñu mën a seetlu ci biir gannaaw ma nag am na kàddu diine goo xam moom mel na nam war a mel waaye lii indi jafe-jafe ci mbir mi mooy léegi ku tëb rek wala nga jóg rek daal di tuddee sa bopp zaim diini man chef religieux la am naa sañ-sañ wax ci turu diine loolu suñ daam moom la doon junj léegi mooy ne léegi kilifa diine dafa yomb faqi li ñuy wax faqi ne nitu xam-xamu dama am xam-xamu diine dafa yomb léegi ñuy fatwaa du xaaj du jeex ku nekk yaa ngi wax kon wala sax boo nekkoon kilifa diine nekkoo mufti nga jàppee sa bopp lu ñuy wax ab waaraatekat boo xam da nga naan da bëgg a waxtaan ak nit ñi ngir waar leen ci diine su loolu lépp am nga nekk conférencier koo xam da nga naan damay waxtaan ci diine ak yu mel noonu kon loolu bari na lool léegi ñëpp a koy def bari gum bari nag ak tasaaroo gum tasaaroo gum ñëpp ko ñëpp def nag dafa jur ay laaj yu baree bari yoo xam ne nii bu ci nekk war nañ koo xool jéem a seet nun koy tontoon bokk na ci laaj yooyu ndax kàddu diine gi tasaaroo ci jamono ji ñu toll nii dañ koy jàppe ne mooy bataaxel bi diine joxe di ko jëmbale ci ñeneen ñi mu jóge ci ñun diine dem ci ñeneen ndax li ci ñëw ci tont ndax jàpp nañ ne mën naa dal xelum ci nit ci fi toll jamono toll ndax jamono fi mu toll ak situation bi ñu ak jafe-jafe yi ñuy dund ndax kàddu diine yi ñuy dégg ñu ciy wax ndax yooyu lañ ciy wax doy nañu walif ñuy wuti yeneen solution ndax langage bi ñu koy waxee façon bi ñu koy waxee ndax noonu lañ ko war a waxee ngir mën koo jottali ñeneen ñi ñu mën koo dégg ndax discours boo xam ne nii la ci ëpp ma ngay waxtaanee xar baax ma ngay waxtaanee miracle ay mu'jizaat di waxtaanee ay particularités yoo xam ne nii ku nekk ay jagoo la ndax loolu dëppoo ak léegi fi nit ñi toll ci wàllu xel fi nekk dañu toll ci jamono yoo xam ne nii. xel léegi dafay màgg di fonctionné bu baax a baax a baax ba féete kaw sax nag yu baree bari xel moomu di màgg na nga xam léegi dafa tasaaroo fañ ko gënoon a xamee sax léegi weesu na ko dem na ba ci mboolem nit ñi di gën a bari ci nit ñëpp léegi seen xel day fonctionné normalement ndax nag xel bu accès foofu ndax léegi xel mi lañ war a waxal wala yéeg-yéegi biir yi lañu war a waxal sentiment kuy wax ak moom mooy kiy wax ci ay xarbaax kiy wax ci ay miracle kiy wax ci ay particularité kooku sentiment lay waxal waaye nag ki wax ak xel nag am na leneen lu mu war a wax ak moom ak lu muy argumenté la muy wax ba boroomu xel man koo nangu ndax discours diine bi ñu dégg te la jëpp di ay kiimtaan yu mel noonu ndax mën naa dëppoo fi xeli doomu aadama yi toll ci jamono ji ndax discours boo xam ne nii dañ naan mooy kàddu diine te soo ko déggee la cee gën a fees mooy ñaaw njort ci keneen ki nga seqal àdduna nga jiital ñaaw njort ci moom te léeg-léeg sax doo ko teg fenn baraana koy dégg mu wax ci tur yi naan dañuy xeex dañuy xeex dañuy xeex dañuy xeex diine ji te boo ko doon sëñ bi ana kiy xeex diine ji du ci mën a teg bar du teg mën a teg loxo mën laa ni lenn lu lay lay wër ne moom daal gëm neen dañ koy xeex fu mu toll ci danaan dañuy xeex diine dañuy xeex diine ji bëgg ñoo dugal ci guerre boo xam ne guerre fantôme la boo xam ne ni ñun xamuñ sax kañuy xeexal ndax nag guerre boobu ngay déclaré te mënoo wane ki ngay guerreel dëggantaan ndax discours la boo xam ne nii dana joxe li nu bëgg waxkat orateur orateur mooy kiy def discours orateur boo xam ne nii moom lépp moom daje na ci moom ba mu des nag moom mu nekk royteef mu nekk royteef ci la muy wax nekk royteef ci melokaanam nekk royteef ci démbam loola moom bu manqué ci moom lool lool ndax orateur boo xam ne nii lépp mën naa mat waaye nag moom ci boppam la muy wax kenn mënu jaarooy ndax na muy wax ak na muy defee rek rek day wuute melokaanam ñu xam ko gis ne mi ngi wax waaye dañuy gis ne ni muy doxee wut naag la muy waxee démbam tam ñu xam ko gis ne ay jaar-jaaram moom wax dëgg yàlla doyut ñu baree bari ndax orateur bu mel noonu am jaar-jaar yi mel noonu bu ñëwee ne man maa yor kàddu diine di ko wax ndax kàddu diine ga muy wax ndax max naa mën naa bàyyi jeexital jam war a bàyyi ca ña koy déglu ndax lii ñu seetlu léegi ci ñi la ñoo yor kàddu diine gi discours diine bi ñu koy jàllal léegi te ñu ëpp ci ñoom soppi seeni bopp ay comédien ay comédien nañ léegi ñoom ñooy dem ci plateau télé yi ko la cëpp la ñuy wax luy reetloo nit ñi lay doon wala ñu wax maanaam tànj maanaam lu réeréy loo xam ne nii lu ñu ne tànj lu réeréy loo xam ne nii ñëpp dañuy ñëpp dañuy dar seen gémmiñ te la cëpp ña koy def lañ ci jublu mooy lan mooy fexe ba attirer attention nit ñi wala boog fexe ba seenu fés seenu feeñ gën a fés kon ndax orateur yooyu di wax ne ñoom ñooy kàddu diine te de sot seen bopp ay comédien te lépp ñu jàpp ne wàllum modernité wala modernisme ci lañ koy dugal ndax gis nañ ne léegi kat war nañu mën a jëfandikoo comédie pour mën a jàllale message su diine ak yu mel noonu ndax dëgg-dëgg ab comédien mën naa yor kàddu diine ndax mën nañoo jàll ci comédie dëggantaan pour jàllale bataaxelu diine kon war nañoo laaj ndax ñooñu doxañ woo ñuy dox ndax day jariñ diine wala daf koy lor ndax ni ñu seetlu léegi ci ña ngànk kàddu diine mooy ñu néew ci ñoom ñooy wàcc da ngay ñëw rek ñu jox la kàddu gi nga daal di départ fekk na loo dara loolu ñoo wax nga da nga ko irtijaal daal da taxaw rek di sotti ko noonu léegi lu bare loo maanaam lu saxal ne rek nga dugal ko ci biir doo tënku ci benn tomb bu ñu xam léeg-léeg itam langage bi ngay jëfandu jëpp rek da ngay mel ne koy défendre comme dañ la attaqué ngay défendre ndax waxoon nga dem ndax mën naa dëppoog nag jamono ji ak saa su nekk ndax kon yooyu mën naa andi ay tont yoo xam ne nii mën naa doy ñi ci des kon nag ay laaj yu baree bare yoo xam ne ni judd na foofu bu ci nekk nag war nañ koo gëstu wutal ko tontu tontu lañ koy wutal war na noo fexe ba mu nekk tontu loo xam ne nii ka ko dégg dana la mën a convaincre maanaam dana la mën a doy sam xel loolu nag bokk na ci lañ koy may mooy ñu nangoo jàmmaarlook suñu bopp nafaraat suñu bopp defaat li ñuy wax autocritique te mooy ñu xool ñun manqué manqué yi nekk suñu biir te ñu war koo jubbanti ñu jubbanti ko te it nag nangu réalité bi te xam ne situation fu mu toll nii li ci mat a ci bari na lool ci li ñuy tuddee këru diine wala li ñuy tuddee kàddu diine kon nafaraat suñu bopp def suñu autocritique te mooy xool li ñu war a jubbanti jubbanti ko bu fekkente ne bëgg nañ jàllale kàddu diine defe naa ne loolu mënu caa ñàkk kon bu ñu defee jotaay bi mel nii ngir tànn Maodo benn war ko waxtaanee defe naa li ci ëpp mooy génération bi nga xam ne ni ñoom ñoo toll ci jóg ñu fexe bañ doon ay maas yoo xam ne nii danañ amug yeewu ci àddina bi bu ñu nee yeewu ci àddina bi nag mooy nga nga xam liy dox ci àddina bi ba noppi am ci taxawaay loolu rek mooy yeewu ci àddina yaa ngi koy sukkandiku ci xam sa démb xam sa mbatiit xam say aada ak say cosaan ak sa culture waaye tam nga xam li sa jamono laaj ba nga mën leen a boole bu ko defee danañ mën a waxtaanee suñu xadaaya wala boog suñu problème yi nga xam ñu ngi koy dund te lépp luy xeetu par parloo akuk féete ñu génne ko ci te jéem koo jàngat jéem cee génne loo jàpp nañu mooy dëgg tem leer nañ ñu joxe ko te yàlla dong tax ak lu jariñ askan kon ni ko suñ daam waxe xëy na ngir gën a xóotal ci waxtaan wi danañ waxtaane tuuti lan mooy xitaab ak ban solo la discours mooy lan ban solo la am ci tasaare am njàngale ak bu woote ak kiy def orateur bi kiy wax wax ji moom ay responsabilité fan la toll ak fan la tàmbali fan la yem suñ ko noppee xool kàddu diine ji fi mu toll jamono ji ci diggante ki koy joxe ak diggante la muy joxe moom it ñu xool rëq-rëq yi nga xam ne seetlu nañ ko ci ñu tudd ko bu ñuy waxtaan fi nag mën naa am yi nga xam ne ni moom jàpp nañu yu jaar yoon la mën nañu ko bañ a tudd ndax li ñu ëppal solo mooy rëq-rëq yi ñu xam ko ngir mën a jubbanti su ko defee danañ waxtam ci discours bi wala kàddu diine gi yan melokaan lañ jàpp nañu ñun moo ci war a nekk ëllëg moom la ñuy mu ne ci ngir mu wuuteeg kàddu diine gi nga xam ne nii moom lañuy jot jamono ji suñ noppee nag door a tëj kàddu kon wax nañ ko léegi ne discours wala kàddu mooy wax ji ci boppam wala lam làmboo la bataaxel bi làmboo ci biir kon foo ko fekk ay wax lay doon yoo xam ne ni day làmboo ay xam-xam yoo xam ne nii kiy wax te mooy ki koy yónnee wala ki koy bind ndax mën nga ko la nga bind ko ki koy yónnee daal da cay jublu tuxal ko jox ko kim koy yónnee ki mu koy yónnee nag moo ki koy déglu wala ki koy liir tiim ko di ko jàng waaye nag balaa tudd discours nag day fekk ki koy yónnee jublu ci jeexital ci ki koy dégg maanaam bàyyi jeexit ci ki koy dégg waaye tam orienté ki koy dégg ci jubluwaay bi nga xam ne nii moom jàpp na ne njariñam moom ca la nekk maanaam ki joxe wax ji day bëgg a jubbanti orienté ki koy déglu mu jëm ci wet gi nga xam jàpp na ne moom njariñam foofu la nekk loolu mën cee ñàkk kon discours boo mën di dégg il faut que ki koy yónnee day fekk mu bëgg a jeexital ci ña koy déglu waaye tam bëgg leen orienté jubbanti teg leen ci yoon woo xam jàpp na ne moo gën ci ñoom kon discours diine ji wala kàddu diine ji bu ñu ko waxee mooy bataaxel bi nga xam ne nii day làmboo woote ak orienté ak tegtal ciw yoon bi nga xam ne nii ñooñ déene ñuñ diine bëgg nañ koo jàllale ci ñi nga xam ñoom lañ séqal àdduna bi te jublu ca nag tasaare diine waaye itam leeral yenn ci dëgg yi nga xam ne nii wala réalité yi nga xam ne nii diine jooju làmboo na kon loolu rek mooy ab discours wala mooy kàddu ci bis bu ñu ko tënkee ci lu gën a yaatu ak kàddu diine bu ñëwee ci diine diine bu ñu ko waxtaanee fii lislaam dugg nañ ci biir yeneen diine itam dugg nañ ci biir donte ñu nag dañu ne ñun dañuy nangu ne lislaam mooy diine bu dul moom duñ ko tuddee diine waaye diine nag ci gëstu rek ci wàllu xam-xam kese moom képp koo xam ne nii am nga pas-pas ci jëmm joo xam ne nii doo ko xool gis ko doo ko làmb daj ko te gëm nga ni mi ngi sappaandu say mbir di ci jeexintal loolu pas-pas bu ko am rek am nga diine léegi nag na nga koy tuddee da nga koy tuddee lislaam da nga koy tuddee jeneen diine am nga diine waaye nag ñun ci suñu jàngin dañaan lislaam mooy diine waaye daal loolu mooy kàddu diine kon kàddu bu mën di doon ñetti mbir yi may bëgg a wax mënu caa mooy ki koy joxe bataaxel bi ne ci biir ak ko koy jël ñoom ñëpp mënta ñàkk muy jumtukaay boo xam ne ba àdduna sosoo ba léegi mësuñoo dañ di ko jëfandikoo te ba léegi itam ñu ngi koy jëfandikoo képp koo xam am nga bataaxel boo bëgg a jàllale ci ñeneen ñi képp koo am nga woote boo bëgg a woo ñeneen ñi ñëw ci da nga jëfandikoo discours li ci bari moo tax sunu borom wax ci alxuraan ne bi mu wax ak Daawuda ne ko Daawuda maa ko jox xereñteef waaye itam maa ko jox discours bu leer nañ ñi boo xam day tàqale ak dëgg ak neen fu mu ko waxee ñu daal xam dama bëgg wax kon kii def discours bi mooy ki koy wax moom ci boppam bu koy wax na jàpp ne day ab tegtal lay joxe mi ngi joxe ay tegtal mi ngi wane aw yoon mi ngi orienté nit ñi jublu ci barab képp koo xam yaa ngi joxe tegtal nag wala nga way wane aw yoon nag jàppal ne tegtal yooyu ku ko jëfee wala yoon wooyu ku ca jaar yaag moom lam cee jëlee yéen a cee bokk boo tegee nit ci yoon bu baax mu jaar ca bu ca amee bi yool da nga ca am bi yool yow boo tegtalee nit yoonu safaan ba mu jaar ca tam na la woon ni lu mu ci am ci bakkaar ëllëg yow tam da ci am lu ne toll kon foofu la ñuy gis ne kon orateur bu nekk am nga responsabilité bu diis bu gàll ci saw loos boo xam ne war nga koy bàyyi xel kon dana jàpp ne discours boo gis am na contenu te mooy li mu làmboo ci biir kii wax moom la bëgg a jël jàllale ko mu àgg ci ki nga xam ne nii moo koy jël tem jublu ca jeexital ci moom ak orienté teg ko boo ko defee ba nopp nag war ngaa natt discours bi ndax man ni ma doon séentu ci jeexit discours bi mu jàllee ndax bàyyi na jeexit jooju su ko bàyyiwul rek jàppal ne discours bi dafa échec kon discours boo def ba nopp te gis ne bàyyiwul benn jeexital ca la da nga taxoon nga di ko def jàppal ne discours boobee jàllut na mu war a jàll loolu mën naa tax nga laaj kon ndax discours diine mu ngi jàll ndax ñiy wax ci diine bari na lool waaye nag lii lii lii safaanub diine itam mel na ne bari na lool lool kon discours bi bàyyiwul jeexital rek jàppal ne discours bu échec la su fekkente ne daa bàyyi jeexital joo xam ne nii wuute na yow ak la nga bëggoon bàyyi ko jeexital ba tey jàppal ne discours ba dafa échec su fekkee da nga wax ak nit ñi di leen jóg ne leen jëm leen penk nga xool gis ñëpp jublu saw bàyyi na jeexit waaye nag jeexit jëm bàyyi bokkut ci nga bëggoon kon jàppal ne sa discours tam dafa échec kon responsabilité bu mag gàllu na ci loosu ñi nga xam ne ñoom ñooy orateur wala boog ñi nga xam ne ñooy kilifa yi diine wala boog ñi nga xam ne ñoo tudd seen bopp nitu diine te ne ñoom ñoo yar kàddu diine gi di ko jàllale xëy na nag foofu lu ñuy borxal la ñu bàyyi xel ci ne lislaam li ñu tudd rajulu diin amu ci maanaam ku nekk rajulu diin boo ko déggee ci yeneen diine yi mooy ki nga xam gëm na ne moom moom moom moo am sañ-sañu leeral yaxub diine mooy firi mooy wax lii ak lii ci diine ñeneen amuñ sañ-sañ ñeneen dañuy déglu loolu mooy rajulu diin ci yeneen diine lislaam nag ku nekk yow sa responsabilité nga dem gëstu sa bopp xam diine ji sa warteef la nga dem defandikoo ko sa bopp kon foofu xëy ne bu ñu waxtaanee naan kilifa diine wala nitu diine dañ koy jëfandikoo noonu rek ànd ceeg ñeneen kon warteef gàllu na ci seenu loos ñoom ñooñu te bu ñu xooloon nag laajoon laaj yu mel nii danañ xam ne warteefu mag gàllu seen loos tey ñoo ngi nii ne ñu ngi dund diine ku nekk xam na ne jàkk yi moom gën naa fees koo gis mi ngi kurusam léeg-léeg sax koo gis mi ngi jikko alxaanam wala nangamam di ko jàng waaye li ñuy wax tadayun te mooy dundu diine moom daa gën di manqué woyefal gi ñu woyefal dundu diine ñun ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel kon nag war na noo xool kan moo am responsabilité ci nit ñi jàpp ci li kaw diine gi rek te li ca biir diine ñoom duñ ko jëfe loolu ñu ñëpp am na ci responsabilité waaye nag ku nekk xam na ne ñuy wax ci turu diine kenn ëpp leen ci responsabilité noonoo gi am ci diggante kuréel yi nga xam ñoo seq jenn diine ba noppi dem ba ñoom mënatuñoo ànd dox ngir noonoo seen biir kan moo ci am responsabilité xam nañ ne ña ko séq am nañ ko ca waaye tam kii yor kàddu diine tey saxal loo xam ne nii day wut saxal ak wuute ci biir nit ñi kooku kenn ëpp ko ci responsabilité discussion yu bari yi ñuy def maanaam wax werante yu bari yi ñuy def te daanaka lenn lu am njariñ du ca juddoo nit ñi seq diine di werante ci ay yoo xam ne ni ay détails yu ndaw la ci diine yoo xam ne nii laalul dëgg-dëgg diine yi ñu jël suñ temps bépp def ko ci di ci wax bu ba bëccëg te kenn du ci convaincre sa morom kan moo ci am responsabilité ñu ñëpp la waaye nag ki yor kàddu diine tey jeqi problème yu mel noonu kenn jiituwu ko ci ndax jullit yi am nañ problème yu sérieux yoo xam ne nii maanaam waxtaan na ko jéem cee débat wutul koy solution moo ëpp solo foofu ñu bëgg a jul jël seen dund gépp def ko ci débat boo xam ne ni li cay juddoo am solo euh, fan yi paase am na borom xam boo xam ne neen dafa demoon ci benn réew boo xam ne ka ko jiite jamono yi ku am ay maanaam jublukaayu lislaam la ku jublu lislaam la te réew muy xaw a dox doxin bu gaaw la nee na daal nag prise njiitum réew moome ñiy dox ca mbeddi dëkk ba nee nag léeg ñu gis daal yenn melokaan yi nga xam ne nii yenn nit yi dañ koy garaawal lool melokaan yi ci mbedd yi ñi ngay gis ci mbedd yi nee na mu ne ko waaw sëñ bi lii nag moom lu ci sa xalaat mu ne ko ah, ngay nekk nit diine pare amoo xalaat ci li ne ko ndax lii fi mu ne su ma ci duggee dama ciy lap te dana ma tax problème yi may war a jàmmoonteel dëgg-dëgg du ma jànkoonteeg moom wala boog du ma moom dafa am détail yoo xam ne nii bu ñu ci duggee du fi jóg moom ba kenn at day tukki détails yi kenn mënu ko fee jële léegi nag bu ñu ca duggee dañ cay lab na ca biir di wax bala ñu waroon def far duñ ko def loolu nag def naa ne discours diine bi war na cee bàyyi xel bu baax a baax kon discours ki ko yor orateur bi ko yor am na responsabilité bu mag ciifi tey ñun sunu askan ni ñu dundee ku nekk xam na ne jikkoy naafeq tasaar mooy nit kuy wane lu bokk ak lëm gëm tasaaroo na fi lool ci suñu biir bopp sa bopp gi tasaaroo na fi lool suñu biir gëm njariñ lu teraater lu suufe nga gëm ko wanante gi ñuy wanante suñu biir ku ne di wan sa bopp maa la ëpp ne maa la man yu mel noonu tasaaroo na suñu biir askan lool ñun ñëpp ci am warteef nag waaye ñi yore discours social di ko jàllale tey jàllale ay waxin yoo xam mooy jur lu mel noonu war nañ cee bàyyi xel njariñ la fekkee ku falu fal say bokk lekk ak nguur lekk ak naan folli ko day bett yooyu ay discours la yoo xam ñu ngi koy jàllale ci biir nit ñi te mooy jur yàq yàq yu baree bari yi nga xam ne nii ñu ngi koy gis ci biir dundinu askan bi kon ñu yor discours social bi di ko jàllale am nañ ci responsabilité bu maga maga mag a mag ndax discours social boobu mooy li ñuy wax socialisation socialisation mooy lii génne nit ci mbaay mu yóbbu ko ci nité loolu mooy socialisation loolu discours social dafa bokk ci li koy def ci nit ñi tey baatu politique yi nga nii foo ko tuddee ñëpp du mooy yàq nañ ko yàq yàq ba nit ku bëgg lu baax da nga koy bañ yàq nañ ko yàq ba nekk boo nekkee politicien sax nit ku baax du la bëgg lool kan moo am responsabilité di propagande loo xam du dëgg tegul ci dëgg te du dëgg ba nopp ngay wër di ko tasaare waxante yu ñaaw yi ñuy waxante publiquement ñëpp di ko dégg ci diggante xale yi ak mag ñi ñëpp léegi kan moo ci am responsabilité ñëpp la waaye nag ñi yor discours politique bi te la ñuy wax lépp seen wax la jëpp ci mel noonu lay jëm am nañ ci cër bu mag a mag a mag ñun ñi ay murid lañ waaye ku nekk xam na tey murid gi ubbiku na ba tey ñu baree bari ñemee cee wax lu bari tey am na kàddu yooyu dégg ñu koy teg ci kaw murit gi léeg-léeg sax ñu dem ba koy teg ci jëm yi gën yi gën a fonk ci murit gi bu njëkk kenn mësu koo ñame kon lan moo ne yóbbee loolu lan moo tax léegi nit ñi ñame ñu bay jël kàddu yu mel noonu di ko teg ci murit gi léeg-léeg sax ñu teg ko ci kilifa yi murit yi yu mag a mag a mag loolu ñun taalibe yëpp am nañ ci responsabilité waaye nag ñiy jàllale benn benn ci discours kàddu murit gi ci discours murit gi am nañ ci warteef te mooy li ngay commencé dégg léegi nañu ku ñu ku ñu def nangam ñu def la nangam ku ma wax saaga ma saaga la ku weddi sama ku ma weddi ma weddi discours boobu dafay commencé di tasaaroo ci biir murid yi te dafa bokk ci li ubbi ak yabeel ci biiru nit ndax nit ki bu fekkee da ngeen ne séq bëre combat mu fexe ba xëcc la ci man maninam bu lay daan daan bu gaaw la lay daan moo tax am na waxin yoo xam bu la ci nit xëccee rek dan la daan jël bu gaaw te moo ne sëñ bi moom teeloon na koo xam jàngaloon na ci nax ju xadaayil xaaji jo maanaam fayoonte ay saaga ak weddante ci ay wax nee na jikk yu gën a bon yëpp ci la bokk mi ngi mel ne rek nga toog bi dóorante ak xeex seen biir nee na kon nag loolu discours boobu commencé fës ci murit gi defe naa ne fu la jëkk fayda ji murit amoon nga xam ne nii booy wax duñu la faale ñoom dañuy jëf la sëñ bi doon wax naan maa ngi xaar ba ñuy fay jëf fay wax di bàyyi jëf jëf jooju defe naa ne yaakaar naa ne war nañ koo gën a xalaataat kon discours bi ñuy jàllal ci ñenn ñi commencé ko adapté ci adopté ci biir murit gi am na lum jur lu mel noonu kon ci loolu la gisee ne kon discours bi ci boppam discours yi seen bopp te discours diine ci la bokk laaj na ñu xoolaat ko jàngataat ko gën koo tegaat ci aw yoon ngir taxawaay bi mu war a taxaw ci biir mbooloo mi li mu war a jur mu mën koo jur kon léegi ñu xool nag léegi discours diine bi ñu wax kàddu diine gi ñu wax ñun jamono jii fu mu toll kàddu diine gi bu ñu ko doon jàngat mën nañ koo jàngat ci ay fànn yu bari danañ ko jàngat ci ki koy wax ci boppam ndax mel na ni mu war a mel nam koy waxee ndax noonu la ko war a waxe danañ ci joxe ay misaal li ne ci biir wax ji te mooy bataaxal bi ndax mel na na mu war a mel ndax ma ngay joxe la mu war a joxe bu ñëwee ci bu njëkk bi te mooy ki koy wax orateur bi ki nga xam mooy def discours bi danañ ci seetlu baree bari bokk na ci li ñu ciy seetlu mooy li ñuy wax spécialisation dafa amatul wax dafa am spécialité ku nekk da nga am domaine boo xam nii ci nga gën a mane fi ne tey bu fekkoon da ngaa dem ci ñu yor gouvernement nguurug àdduna boo boo bëggoon ñu waxale ci mbirum santé dañuy woo koo xam ne ni xam ne wàllu wér moo cay wax bu ñu wax ci yoon ka xam mbirum yoon moo cay wax bu ñu wax ci mbirum leneen ak leneen kon lu ñuy wax lu nekk dañuy xool ka nga xam ne nii màcc na jëm ci fànn booba mu cay wax bu dee kàddu diine gi nag dangay gis kenn nitu diine goo xam moom mooy wax ci lépp barab yi li muy wuute wuute problème yi ñu waxtaan lu mu wute wute tomb yi ñu waxtaan lu mu wute wute kenn kii moo koy wax kon nag jot nañu xool ñi ngi ci ay circonstances yu mel nangam conditions yi sàngam ci lañ toll buñ ci tolloo kan moo war a mel méngoo wax ja ndax suñ daan ñëwoon na ci léegi contexte bi ngay waxee dafa am rôle bu am solo am solo bu mu joué ci biir discours bi ak lañ koy dégg kon contexte boo gis am na discours boppam bu ñu ko war a jàllale su fekkee dañoo wax ñu ne dañuy tontu kan moo war a tontu ñëpp a mën a tontu tont moo gën a jëfee attaque kon kii tontu kan moo war a tontu bu ñu waxee kan moo war a tont dañuy joxe ndigal kan moo war a joxe ndigal nit war naa mën a tontu waaye warut mën a am na mën naa tontu te bañ a mën a joxe ndigal su fekkente ne li ñuy ñaawlu la kan moo war a dem ñaawlu ak fan la koy ñaawlu yooyu defe naa ne war nañ cee xolaat yooyu dañ cee war a spécialisé wu ñu waajal ñoo xam ne nii lu mel noonu bu amee ñoom dañ koy mën a jàllale kenn niñ ko bëgg gis nañ ne tam ñu baree bari ñu koy jàllale waajtaay bu ñu leen war a waajal dafay des xam ngeen ne wàllum discours lu ñuy dañ koy jàng dañ koy jàngale formé la ci tàggat la ci nga man ko di ko def dañ lay jàngal ni nga koy bindee jàngal la ni ñu koy waxe waaye ñun dañuy gis ne suñu orateur yu baree bari waajtaay woowu day manqué ci ñoom psychologiquement duñu waajal seen bopp maanaam nit bala ngaa def discours da nga koy waajal ci sam xel xel mi nga koy njëkk a tëgg waajal sa xol sa xel ba dëgër am confiance sa bopp nga xam li ngay wax da nga ko mën a wax te doo ci dengi dengi yenn yu baree bari du la ci dal loolu waajtaay la moo xam ne nii diir bu yàgg lay jël moo tax léeg-léegi fii da gis ku la bëgg a wax ci loo xam ne nii rek jekk jekk rek la waxal wala jox lay wax joo xam ne da nga ko war a wax suba wala yu mel noonu boo ko defee ñaari waajtaay bi nga war a waajal psychologiquement mooy des mooy moo tax boo ñëwee daf ciy feeñ kon nga waajal ko psychologiquement daf ciy am fi mu nekk ne léegi bu ñu naan da ngay def leçon di ko jàngale ñun dañu naan leçon boo koy jàngale bëggoon nañ balaa ngaa dem ci classe bi di ko jàngale yow dong nga tëju néeg néeg di ko wax def ni ngay déplacé wu ni ngay waxee ni ngay yëkkati seeloo ni ngay def nga di ko tàggat ci sa bopp psychologiquement ba tàmm ko ba am kóolute sa bopp ngir mën koo jàllale waajtaay woowu day manqué ci ñu baree bari waajtaay wi ci wàllu xam-xam xam li ngay wax loolu day manqué ci ñu baree bari ci a xamee duñ ko xamee noonu waajtaayu ci sa wàllu yaram sa melokaanu yaram ndax it xam ngeen ne yaram maanaam sa sa personnalité nit dafay jeexital ci la muy wax ak nañ koy dégloo na ngay solo na ngay fi ngi yi ngay gis dafa am ñoo loolu rek loolu dong mooy seen métier ñoom ay ñoo xam li ñuy jàngal nit mooy day nekk orateur boo xam da nga mën a bàyyi jeexital ci nit ñi loolu nag dañ ko waaye sa waat côté psychologie dañ ci waxtaan sa côté xam-xam bi dañ ko yokk waaye itam sa côté yaram xam ngeen ne yaram day wax am na loo xam ne nii sa làmmiñ ko wax sa yaram moo koy wax kon loolu am na ci solo fi mu nekk ni booy wax ak nit ñi ni nga leen di fixé donc dan la koy jàngal maanaam nga takk weeri ñuul ba maa ngi ci jéggul waaye léeg-léeg ñu takk weeri ñuul di wax ak nit ñi dañ koy bañ ndax dafay am sa bët sa bët ni jàkkaarloog moom dafay am lu muy def ci ki lay déglu yow tam ni ngay xoolee bëtu ki lay déglu dafa am lu muy def ci yow fi mu nekk nii tey bu ma leen xoolee man danaa xam ki may topp ki ma toppul fi mu nekk léegi tam boo xoolee bëtu maanaam peru bët bi dafay tourné du sax benn barab waaye bu ne fixé benn barab xam ne kii mi ngi kon yooyu yi ñuy xam la ci discours yow mi def discours bi nag dañ cee war a di bàyyi xel di ko xam ñun fii balaa nag léeg ku ñu jox discours ne ko sëñ bi de tey yaa war a wax kàddu gi bu njëkkee bu taabalee li muy njëkk wax mu ne ah man de wax dëgg yàlla xawma ma war a wax sax a wax moom nangu ne xamul li ma war a wax moom noppi la noppi moo ko war wala sax mu tàmbali ah man de xam naa ne fii óoma fi kàddu waruma fi yëkkati kàddu comme xam ne waru kon yooyu ay mbir la yoo xam dafay indi day indi faiblesse ci discours bi ngay jàllale soo tàmbalee xaw ma lu ma wax rek ku am fu la moom bu lay déglu dana bàyyi xel ni kii xamul lu muy wax boo nee waruma fee wax tam oma fi kat tam ki lay déglu cër bi mu la war a jox du la ko jox kon yooyu ay ubbite la yoo xam ni ñu koy ubbee suñuy discours léeg-léegi te dafay manqué discours bi ci ni muy jàlle te ñu baree bat ñun nag tàmm nañ ko di ko def am na lu ñuy wax réer goo xam réer gu toggaloo la mu bari ci ñuy yor kàddu diine ji lool léegi li ma waxoon léegi ci benn benn ci comédien maanaam yow ngay wax ci diine te xamoon ni li ngay wax xamoo jàpp nga ne da xam diine te fekk na xamoo diine ko nit ki nit ki xamul te xamul na xamul nag moom dafa garaaw kooku moo gën a garaaw ci nit kooku dafa bari ci mbooloo mi léegi te ñoon ñi yor kàddu diine wala sax nga gis koo xam xam na ba noppi wane ne xóoma loolu tam dafay am ndax léeg dañ gis ñoo xam bu ñuy waxtaan ci mbir ci yenn tomb yi maanaam ngir bëgg nit ñi xay na jox leen confiance wala jàpp ne dañoo sell wala dañu jàpp ne dañu wane ne ñoon mbir mi sax da xam naa ne ñoom xamuñ ci dara fekk na xam nañ ko ba jeexal ko tak waaye duñ duñu wane ne xam mooy tasannool jahl mooy da ngay sa bopp te fekk na li nga wax xam dafay wàññi sa valeur discours ba fekkee da nga koy def léeg-léeg nga gis ci ñi koy jàllale koo xam ne nii éloquence bi mu a am maanaam sa làmmiñ leer gi mu war a leer dafa du nekk loolu nattu la am ñoom suñu borom moo leen nattoo dañoo dër ci misaal wala daal seen làmmiñ daal leerut ni mu war a leer wala dafa dotam wala yu mel noonu daal yenn araf yi mënuñu ko génne kooku dem dañuy bàyyi xel ci ne kooku wax dëgg yàlla discours da ko warul ndax tam maanaam éloquence fasaaxa wax ju leer nañ sart la ci discours boo ci yokkee nag ñun kilifa diine koo gis wala boog nit diine koo gis buy wax danaan nañ ko jottali waaye jottali gi lu mu ci doon jottali googu problème yu baree bari ci discours diine ndax yow léegi da ngay gis ku koo xam ni yow li muy wax ci dara dangay wax lii muy wax lële tey léeg-léeg nga wax dara sax mu wax leneen bu ko defee bu ñu fa génnee dañ naan ak ki doon jot li moo ko waaye diw waxul loolu te jot li gi nekkatul farata léegi maanaam yow gannaaw yow am nañ loo mën nañu amplifier sa kàddu yokkal la ko ba nga xam ndànk koy wax mu xumb lool loolu daanaka jot ligi yàq temps la awala ndax day jël temps bu yàtt ñaari ba tam mën naa jaxase wax ji mën ngaa wax lii kii jot li wax leneen kon euh, loolu may la ci du sunu borom defal nit te mooy nga am kàddu gu leer man koo wax nit ñi di ko xam li ngay wax waaye tam nga mën koo jàllale te kenn du la jot li nga am mën a taxaw wax ca kaw ñëpp di la dégg wala boog ñu yokkal la ko wax ji ñëpp di ko dégg moo tax ñëw na ci jeexiti yonent bi ñu ne wax ne ñu wax ne yonent bi day ay waxam wax ju leer nañ ñi la daan doon joo xam bu ko masaan wax ñëpp ay xam li bëgg a wax kenn du fa jóge naan yonent bi lan la bëggoon a wax day leer nañ boo demee ci xutbatu bi widaa da ngay gis lu mel noonu mën nga ko caa jàngate danañ seetlu tam ci ñiy yor kàddu ne ñu bari ci ñoom li ñuy wax franc parler te mooy li nga bëgg a wax ko mu leer naññ ñu bari ci ñoom duñ ko def dañuy wër kay wër-wëral rek laf dawaraan loolu itam dafay yàqub discours bu fekkee da ngay wax ba yàgg nga ne ah li ma bëgg wax de xam naa ko xam ngeen xam li ma bëgg wax sax xam ngeen kon kay daanaka jëru kii waaw bu ñu ko xamoon ñu duñ fi toog di la déglu ñàkk koo xam ne ma tax ñu toog di la déglu ngir nga wax li nga bëgg wax kon nga ñàkk am franc bu toll ne léegi li nga bëgg wax xam nga ko waaye xëy na ñemewoo ko wax ngir ay yu baree bari loolu tam dafay feeñ ci suñu biir discours wala nga dem ba ci biir nga ne loolu sax da jëru ñu ciy sori ko tënk foofu jëru ñu ci sore yu mel noonu tam day tax bu ñu fa jógee ñi ne doon déglu ku nekk da ci am sa dégginu bopp kon la nga doon wax du jàll ndax su fekkee da nga wax ji ba noppi te àggale woo ko wala nga tàmbali wax ji ba noppi nga loolu xam ngeen ko ku nekk kon na koo ko xamee noonu ko xamee kon moo tax ngay waral ngay dégg ñu nekk jotaayu diine ba jógee fa buñ demee ku nekk am sa dégginu bopp ca lañ doon wax te mën naa am sax bu mu wute lool nag ak ki doon wax lam doon wax kon loolu da koy ubbil bunt ci ay explication yu baree bari yoo xam ne nii day feeñ ci biir wax kon loolu tam dafay feeñ ci ñiy jàllale discours bi am na loo xam ne dañ ko seetlu ci ñiy orateur yi ñuy wax ci turu diine mooy léeg-léegi li ñuy wax ak li ñuy jëf dañ dul dëppoo théorie bi ak pratique bi dañ dul bokk tey bu fekkee da ngaa gis koo xam ne nii nee na moom day wax ci kàddu diine orateur la day wax ci diine lu muy waxtaan nit ñi di leen soññi di leen joxe seen alal ji alal ji ngeen di denc nangam ak nangam gëm loo leen ne dañoo war a joxe seen alal yëpp kër yi ngeen di tabax lu ni nga waxal leen ko ba noppi waaw ba noppi yow nga xëy génn génn àdduna bàyyi sa gannaaw alal joo xam ne nii maanaam balaañ ko mën ko lim ba dajal ban ko miraas dong jël temps bu yàgg-yàgg ci alal ju dul jeex loolu wax dëgg yàlla ba noppi nga da ngay daan waxtaan ci diin da ngay wax nit ñi naan leen alal ji bu leen ko denc dee leen ko joxe loolu tam wax dëgg yàlla bari na ci sunu bari na ci ñuy wax ci turu diine lu mel noonu daf ciy am kon li ngay wax man na ne kon ak na ko doon jëfee xaw na noo wuute kon nit bu nekkee ci nitu diine def orateur diine ba noppi wax lu mel noonu ba noppi bàyyi ko fi gannaawam mel noonu dana indi ay jeexi jaaxa ci ñiy déglu lu baree bari loo xam dana ko yàq seenu déglu da leen gis koo xam ne nii day wax ak nit ñi ne leen leen wax leen dëddu la àdduna àdduna ji amul solo wan leen ko gannaaw ma nangam nangam day jeex dafa gàtt waaw te moom ba noppi moom boo ko xoolee na muy dundee moom lenn liy waxtaan tegtal dëdd àddina néewu ci njëkkal xool oto ba muy war rek oto bi 200 millions 300 millions moom lay war donte nag loolu sax du du la aay nag du la aay waaye dañoo bëgg rek nit ki li muy wax bokk ak li muy dund buñ ñu rek day am lu muy jur ndax dëdd àddina tam dëgg-dëgg du du ay nekkul ci li ñuy xool dugg waaye ci xol lay nekk waaye nag kaw gi tam da ciy am mandarga bu mu ci joxe moo tax na kon bu fekkente ni ñoo bëgg a jàngal nit ñi ne leen day leen dëddu àddina ban gannaaw àddina nanu fexe tam nag ba ñu koy jàllale tam nag melokaan yooyu bu mënee néew ci ñoom moo gën kon danañ gis ne léeg-léegi ñuy jàllale discours diine bi ni ñuy dundee ak ni ñuy waxee léeg-léegi dafay wute lool lool ba ci ñuy def conférence sax nag conférence yi ñu def ni da gis ne da nga def conférence ba boo génnee la ngay nga doon wax ak la ngay dund dañuy sore lool sax lool lool sax te loolu nag kon mat nay bàyyi xel loolu tam dafay am lu muy yàq ci discours kon bari na yoo xam ne ni dafay dellu ci kiy def discours ci boppam am ci loo xam ne nii ci jëmmi bataaxe bi lay dellu ci biir la ca jiitu mooy ne bataaxal yi ci baree bari da du leer du leer maanaam orateur yu baree bari bataaxal bi ñuy jàllale da leer ni mu war a leer te it mën naa am ñoom itam ban façon bataaxal la ñuy jàllale du leer ci ñoom ndax bataaxal bu nekk ak nan ko war a jàllale moo tax dañu booy wax ak nit ñi mënta génn nii benn ngay wax ak par benn wala ngay wax ak mbooloo su fekkee da ngay wax par kenn te wax ja nga jub ci rek leeral ko du muy déglu du ko leeral seen mbir yu mel noonu loolu mën nañ ko tudd da ngeen di waxtaan su fekkente ne da ngay wax kenn wala ñaar nit gis loo xam ne seen njariñ da caa nekk nga di leen ca soññi yërëm leen di leen soññ ngir njariñ loole bañ leen a faat loola mën nañ ko tudde da ngay dénkaane wala da ngay laa biir da biir bu fekkee da ngay wax ak mbooloo tam benn ngay wax ak mbooloo mi ngir leeral ay vérité scientifique maanaam ay dëgg-dëgg yoo xam ne xam-xam daf koo saxal kon la ngay def rek mooy ñëw di ko leeral wala muy ay théorie yoo xam ne nii dañ koo jàngat ba xam ko nga ñëw di ko leeral nit ñi boobaa mën nañu wax ne da ngay conférence wala da ngay def maanaam conférence wala boog dangay ngay wax ak mbooloo mi ngir yëngal seeni sentiment seen yëg-yëgi biir waaye itam dugal ci ñoom ak xër ngir la bëgg ñu def ko ñu def ko ak xëcc ñi ngay waxal bañ gëm la ngay wax loola mën na nañu wax ne boobaa yaa ngi def xutba wala boog yu mel noonu léeg nag yooyu dafay dañ koy jaxase dañ koy jaxase ndax bu ci nekk dafa am nañ ñu koy wax ndax fi ne waxtaan bu ma seqoon waxtaan ni may waxee yow bokk ak su may def conférence ni ma koy wax waruñoo su ma la doon conseil di la dénk bokkut ak su may su ma lay leeral ay loo xam xam ne war la ko jàngal mu leer nañ nan koy waxe du bokk kon jàngale ak waaraate foofu la ñu wuute kii jàngale ni muy waxe ak kii waaraate ni muy waxe waruñoo bokk même discours bu ñuy yore moo tax ñun fii da ngay def conférence bu kii ba sonn ca lool wax a wax ba ne xaaw nga génn gars yi ne la conférence bi neex na lool wax ji de neex na lool neex waaw dëgg ndax dëgg la wala dëggéey wala leer na wala leerul wax dëgg loolu lañ gën a soxla waaye neexaay moom waxuñu ndax neex tax koo jóg te ñu bari ñuy wax ci diine itam nag fi la xal ay nit nee nañ nit diine lañ waaye boo leen laajoon lislaam dëgg-dëgg sax xamuñu fi ne boo leen neewoon ngeen sëñ bi yow lan mooy maanaam du la tontu wala bu la tontoo tontu la dana gàtt gàtt boo xam dana sore lool ak présenté lislaam nin ko war a dégg yooyu yëpp kon dafay ñëw ci biir nga gis koo xam tam lislaam daa jàpp ne rek ay texte la yu ñuy mokkal foo waxee mu tarif aaya tarif hadis waaw maanaam nga xam daal dañ la koy jàng muy loo xam ne koy mokkal ay connaissance yoo xam ne koy mokkal te fàtte nañ ne l'islam bu ñu ko bëggee jàngale dañ ko war a jàngal en tant que système de valeur maanaam système boo xam ne ay cëslaay dañ cëslaay yoo xam ne dañ koy def ci nit ñi mu feeñ ci ñoom ak njulli dëgg-dëgg diis ko nat julli gu bari ak woor gu bari waaye ñu koy nat ci ay melokaan ak ay jikko loolu yonent moo ko jàngale ñun nag dañuy jàngal nit ñi ci ay théories yu baree bari sol la alxuraan ji ba mu fees del sol la hadis am solo am war am la tam waaye nag loolu kese daa doyut jikko melokaan yi valeurs yooyu war nañ ko caa bàyyi xel kon tam léeg-léeg kon maanaam bataaxal bi mu leer ci yow mu koy joxe dana ci am sol léeg-léeg nag leer googu daf ci manqué ak ban façon bataaxal nga yor ak ban façon jàllin nga ko war a jàllin danañ gis tam ne discours boobu dañ koo tëj ci démb ndonoli ndonoli li wees histoire nun ñuy wax ci diin ñu baree bari seen wax jëpp démb rek salaf maanaam sunu maam yi moom la ñuy waxtaane waaye nun sunu ñun lan lañ def ak fan ñu toll liñ ciy waxtaanee bariwul day mel ni ñun dañoo jàpp ne suñu problème yi ñuy dund la koy réglé mën nañu koo jëlee démb déedéet mag ñi démb nañu réglé woon seeni problème mën nañ cee jariñu nag moom waaye nag bokkut ak ni ñu war a mën a réglé ñun suñuy problème kon ñun dañu am ay contexte boo xam ne ñuy dund war cee jëfandikoo xel mu bees moo xam nañu ñu war a jëfandikoo kon nag mën na noo sukkandiku ci démb waaye nag buñ ko tëj ci gis nag ne discours yu baree bari yi ci wàllu diine ji la cëpp boo koy xool dalay delloo ci démb ak salaf moo tax léegi da ngay dégg ñu la histoire day répété wu histoire du répété wu la lax si jàll du ñëwaat mukk leneen mooy ñëwaat mën nañoo niroo nag ba nga jàpp ne benn waaye am na lu bees lu ne ci biir kon xew-xew bu xew xew bu bees la te kon maanaam doxalin bu bees moom nañu war a jàmmarloo ak moom kon problème mën nañoo niroo lool waaye solution yi mënuñoo bokk kon démb am na solo suñu ndono dañ ko war a jàng xam ko di ci sukkandiku ci lu baree bari waaye nag nañ bàyyi xel ci ne suñu problème jamono yi dañ koo war a wutal suñu solution yi bopp yi ñoom léeg-léeg itam dañuy gis ne bataaxel bi nga yore diggam ak réalité bi ñu dund day am rupture maanaam day dagg maanaam daanaka dadul jokkaloo ak réalité bi ngay dund moo xam nag suñu réalité bi ñu dund suñu suñu goxu bopp la wala réalité bi àddina biy dund fi mu nekk tey discours diine yu baree bari boo koy déglu du bàyyi xel moom fi àddina bi toll ak moom sax dëkkam fam mu toll mu nekk jamono toll ñu Sénégal tey maanaam discours diine buy jóg bu nekk bu fekkee yàgg xam nga réalité Sénégal fi mu toll nii nii nii war ngaa wax ak nit ñi ci liñ toll teg du baree bari ci yoo xam ne war nañ cee wax ak nit ñi tam jot sëkk nag te nitu war cee yëkkati seen wax ceeg nit ñi kon buñ daggee diggante discours bi ak réalité bi ñuy dund dana tax la mu war a bàyyi jeexit du ko jeexit du ko bàyyi réalité nag ay façon yu bari la ay facettes yu baree bari la am lu ràbbal loola lu fasu la kon nag war nañ koo jàngat bu baax a baax ba discours bi mën koo traité waaye discours bu fekkente ne mënta traité réalité bi ñu dund mën ca indi du ca mën a andi solution léeg-léeg itam dañuy sukkandiku jur baree bari rek ci ay yëngal yëg-yëg nit di leen nettali ay xissa di leen nettali ay xar baax leen nettali ay yoo xam ne nii dëgg la amoon na waaye loolu am na solo waaye dafa am barabam ak fu ñu ko war a waxe foo mën na faa walaabal ak foo xam ne nii du fa walaabal kon ci biir discours bi tam dañ gis ne bari na yu ci nekk yoo xam ne ni moom itam mën nañ ko xoolaat kon nag gannaaw ba gis nañu loolu mooy réalité discours diine li ma waxoon léegi nañu bàyyi xel ba léegi am na discours diine yoo xam nag ma ngay mel na mu war a mel kon ñi bi ñuy wax lii mooy discours yoo xam melut na moo tax ñuy wax du yëpp itam nag am na itam lu baax nag waaye li baax nag moom daanaka bu jër tudd ndax xam nañ kon discours ñun bi ñu jàpp ne mooy discours diine bi naka lañ ko séentoo ëllëg ak yan melokaan lañ jàpp ne bu ci nekkee mën naa jëriñ diine ji bu ñu delloo ci mbatitum lislaam ndoonay lislaam dañ koy jàng jox wax ju siiw joo xam ne nii xel nangu na ko logique tam nangu na ko te mooy xel ni muy noso nangu na mooy wax ji wax ne bu ngeen di wax ak nit ñi nangeen ngeen wax ak ñoom ci seeni xel toll wax ju siiw la waaye defe naa ne ba léegi walla ba ne nit ñëpp war nañ ko mën a nangu te ci wax ak nit ñi fi seen xel toll ci lañ waat jeneen wax mooy ñu ne kat jataay bu nekk am nay waxam waaye wax ju nekk am na jataayam dañ ko ràbbe ci lañ sukkandiku tam nag ba séddale nit ñi ay pàcc kat yi ñoom dañuy seddalee nit ñi ay pàcc am na lu ñu te alxamatu mooy masse populaire masse populaire bi mooy lépp ci nit ñi mbooloo mi am ñoo xam ne xaasa la ñu tuddee mooy génn nañ ci mbooloo mi waaye nag agguñ fenn am ñoo xam ne nii safwa la ñu tuddee mooy crème bi crème mooy ñi nga xam moom ñoo ne ca njoboxtan ñooñu nag ku nekk da am discours boo koy war a jàllale ci moom ñoom ñëpp mënu ñoo bokk benn discours fi ne booy dagan naag daganut ak xaraam ak alaal ak sawar ak àjjana ñoom loolu la ñuy wax ak ñoom ndax loolu lañ soxla waaye nag boo ko rëccee jëm ci beneen côté bi nag am na beneen discours boo xam ne moom ngay jëflante ñoom moo tax discours ay façon bu ma boo taxawee ci kanam nit ñi taxaw ci kanam jàkka ja di wax ak mbooloo mépp discours ba ngay jàllale wërte bokk ak boo toogee ñoo xam ne ni ay groupe bu gàtt la bu ndaw boo xam ne ni ña fa nekk ñëpp xàmmee nañ bu baax a baax discours boobu mënta bokk kon loolu tam ñu bàyyi ci xel kon ñooñ ku nekk am na discours bu ñu war a jàllale ci moom jàpp naa itam nag ne xel mënta nangu ba jamono jii nga toog di jël discours boo xam bañ ko bindee léegi ëpp na junni at wala boog ay téeméer téeméer dañ ko bindoon ci gannaaw dañ ko bindoon ci contexte bu ñu xam bindal ko mentalité bu ñu xam bindal ko jamono ju ñu xam yow nga jël discours boobu mokkal ko defe ne moom rek nga war di jàng sunu xutba yi ajuma leel da ci am nga gis jumaa yoo xam ne ni benn façon xutba rek la ñu am wala boog maanaam xutba yi lii mu la am moom la ñuy répété fu ñu man am na jumaa ju ma saan julli joo xam damaa demoon ba mokkal xutba imaam bi ndax dégg ma koy dégg ajuma ju nekk moom lay jàng te discours boobu ba ñu ko bindee nangami at la maanaam discours yu jëkk yàgg la yàgg yàlla loolu nag defe naa ne war nañ cee xalaat ndax kon discours bu mel noonu tam mënta joxe li nga xam moom lañ bëgg ndax discours bu nekk dañ koy bind te buñ koy bind dafa am lu tax ñu koy bind dafa am lu xewoon ñu koy bind wala contexte boo xam moo taxoon ñu koy bind kon kenn bañu nga jël discours bu démb waaye nag da koy adapté boo jëlee waxi démb dangay ngay fexe ba adapté ko situation bi ngay dund mën ko cee tëgg bu ko defee ñu man koo jariñoo ci jamono ji waaye boo ko waxee nañ ko doon waxee démb barki démb rek ni ciy jariñoo mën naa bañ a demee noonu yaakaar naa ne bu ñuy waxtaan ci wàllu discours buy jàll dëggantaan am nañ ci suñu mag ñun ñoo xam ne mën nañoo tegtal ku mel ne Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye radiyallahu anhu ci orateur yi gën mag ci histoire ci la ci façon waxin ak ci façon continue yi nga xam ne ay discours am daanoo am yaakaar naa ne tonalité discours yi mu daan def ba léegi day mel ni écho bi nit ñi dañ koy dégg seen xel ndax jeex jeexit ñu daan bàyyi te bu ko masaan def daana ci bàyyi xel moom kàddu gi léeg-léeg kàddu gi ni muy jóge léeg-léeg ni muy bare léeg-léeg ni mel ne xaw naa tàng ak yu mel noonu waaye li jëpp solo mooy ni mu daan séddalee discours bi discours bi da ko daan séddalee ay pàcc da ngay dégg bu ubbee ba wax ak ñenn ñi pare day daan ne nag may leen ma nag ma wax ak sama mbokki taalibe yi wala may leen ma ma wax ak sama mbokki jullit yi te bu waxee day nuyoowaat day nuyoowaat wane ne kon pare naa fële maa ngi ci ñeneen day nuyoowaat bu nuyoowaatee itam da ngay gis ne ton bi mu doon waxee day sot da gis ne fi mu daan jëlee référence day sot ci misaal tey bu fekkee da doon wax ci xaaj bu njëkk mu doon wax ak nguur geeg yu mel noonu da ngay dégg mu naan li def ci dëkk bi làmp yi ndox mi foofu lay référé waaye bu ñëwee ci mbokki taalibe ak mbokki jullit yi xasida lay wax ak alxuraanu karim nga gis ne ko référence bi bopp da koy sot kon am na discours boo xam ne nii wala bal na ci ki nga bokkal diine wala ba ngeen bokk pas-pas mën nga ko wax mu di nga déglu waaye ki nga xam ne li nga wax gëmu ci dara moom ba bokkal li nga gëm gëm ko am na loo xam boo koy wax moom da nga ànd ak moom am na nag xam yu baree ba yoom nañ ci discours diine ji yan critères yan melokaan la war a am ku mel ni Yusuf Xardaawi bind na ci lu baree bari loo xam ne nii mën nañ ci tibbe ci moom aslëf moom ñoom gis nañ ne discours bi ñu jàpp ne moom discours bi noonu la war a mel maanaam melokaan yi mënu cee ñàkk dana nekk discours boo xam ne nii day sukkandiku ci wax yi wax mooy li nga xam moo bàyyi ko ci yàlla di wax suñu borom muy alxuraanul karim waaye nag du sàggane xel dañuy gëm ne kon discours l'islam discours la boo xam dafay woote ngëm yàlla goo xam ne nii dafay tegu ci wax yi naq la luñ tuxal te mooy yaxu diine tënku ci ndigal yi tere yi te delloo ko ci diine ci jaamu yàlla ko jëflante gi waaye tam nag dafay wax woote ci wa même temps dafay woote ñu warmaal xel xel dafa am wàccuwaay ci lislaam te nag nit diine yu bare ba dañoo bëgg a jàpp ne xel amul place ci xel sax booy xool mooy lislaam jëf sax balaa ñu la koo togg da am xel boo amul xel kenn togg la jëf wala boog ci ñenn kon xel moomu ci lañ mën a sukkandiku ba mën a xam mën a xam ni ñuy ni ñuy ni ñuy xamee suñu borom maanaam wala boog lu mën a xam suñu borom ci xel lañ jëf lu ko daa xam yonent bi bu ñu ko mën ñu man koo xam xel lay doon alxuraan ji sax balaa ñu ko mën a dégg dañu amul xel buñ jàpp mukk ne lislaam dafa gannaawal xel te nag léeg-léegi da ngay dégg ñu bari bu ñuy wax ci diine dina naan diinu naa mag nu ala naql laa ala munasabati al aql maanaam dañuy wax ne diine ji ñu ngi ko tabax ci lu ñuy tuxal ab yax waaye kenn tabax ko ci xel waaye même yax boobu nga tuxal ku koy dégg bu amutu xel doo ko xam di alxuraan di fi nekk nii loo ko mokkal mokkal bu fekkee sam xel fonctionné wul mënoo xam li muy wax bis boo tàqale ko sam xel noppi nga xam ne alxuraan di wax kon xel mi ñu bàyyi xel ci ne nanuy wax ak xel yi dëgg la danañ sukkandiku ci alxuraan ndax wax yi la sukkandiku ci xadis bu wér waaye bàyyi xel ci ne am xel la ñuy waxal xel yooyu kon discours bi na ciy bàyyi xel bu baax a baax ne am xel lay waxal war naa nekk mu nekk loo xam ne itam mi ngi mel ne rek misaal mi jox ñu ne mi ngi mel ne ñu joxal làmp xel mooy làmp ñu jox làmp ne la nii niiti ju xool fi ngay jaar yow nga ko fay làmp ba noppi nag di palamte ci lëndëm patamte ci lëndëm loolu koy wax dëgg yaa ngi lor sa bopp te xel mooy làmp bi kon bis boo nappee jëfandikoo sa xel rek dugal nga sa bopp ci lëndëm kon nanu bàyyi xel ci ne lislaam discours bi muy war a jàllale war naa bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax donte nag wax wala boog lu ñuy naq lu ñuy tuxal moo jee jiitu da nekk discours boo xam tam day boole originalité ak modernité maanaam day boole démb la ca baax ak tey li ci baax surtout rawat na jumtukaay yi ni ko suñu daam waxee woon léegi jumtukaay yi ñu jëfandikoo ngir tas ko ku nekk xam na ne léegi bari na jumtukaay yu ñu mën a jëfandikoo ngir tasaare discoursul islam léegi du ndënd mu ñuy tëgg wala kuy kuy yéene wala yu waaye léegi jum fi nga toog ngay toog jëfandikoo lu xarañ lool li ngay wax daal ak àgg kon kii woote bu mu jéem a réerantaloo fi jamono ji toll ci ci développement ci technologie même kiy joxe fatwa na ci bàyyi day bàyyi xel ne maanaam problème yi ñuy dund ñun réalité yi ñuy dund ñun na ci bàyyi xel moo tax léeg-léeg sax ñu naan fatwa bi dafay soppiku léegi comme ñi circonstances yi ni muy soppi ko dafay soppiku noonu jamono jeeg place beeg yu mel noonu ak orf beeg yooyu dafay soppiku léeg-léeg kon discours lay doon boo dafay doole boole originalité ak modernité mooy démb la ca baaxoon ñu jël ko ak li baax tey ñu jël ko boole ko moo tax am na ku ñuy wax Sekeb Arsalan Sekeb Arsalan ci ñi doon gëstu ci wàllu diine ci la bokk dafa wax ne dafa taalif benn téere ni téere mën nga tuddee lu tax ñeneen ñi avancé te julli di avancé wu ci wàllu koom-koomu adduna yi la doon wax mu ne nee na gàllankooru lislaam dëgg-dëgg ñaari mbooloo la ñu ne ci biir lislaam benn benn benn mbooloo moom lay tuddee jaamit benn mu tuddee ko jaaxit nee na jaamit ñi way mooy ñu nga xam dañoo jàpp démb kenn waru faa génn dara warut a soppi la fi amul démb ak dem démb kenn waru koo ñoo ñooñu dañoo way fañ nekk ñooñu mënuñu avancer jaahit mooy daa jàpp ne démb gépp dañ ko war a ndax dara baaxul ci tey rek lañu war a jëfandikoo kooku itam du am fu mu teg tànkam ndax sunu mbatiit mooy fi ñuy teg sunu tànk ngir dox jëm sa kon discours bi ñu am bi ñu jàpp ne moo war a jàll fi nekk nii war naa boole originalité ak moderne mooy dana dellu ci ci reeni lislaam waaye nag dana ubbiku ci jamono ji ni muy dox dana nekk itam discours boo xam ne nii danañu defar sunu ruuxaanee sunu spiritualité dana ko defar baax a baax sunu ru sunu ruux yëg-yëgu biir waaye nag du sàggane matière léeg-léegi ñi bëgg a ne lislaam maanaam da ngay bàyyi adduna bàyyi yu mel noonu loolu itam du discours l'islam bi nga xam ne moo walaabal ci ñëpp et mën naa walaabal ci benn benn waaye mën ta walaabal ci mbooloom jullit yëpp ndax adduna bi itam suñu borom daf ñu fee indi ngir ñu développé ko su fekkee da nga ko wan gannaaw doo ko mën a développé kon il faut nga dugg ci biir adduna bi jaxasoo moom mën cee def li nga léeg suñu borom digal kon discours bi dana defal sa yégeegu biir ba mu set wicc waaye itam nag du la bañ loo matière nga jàpp ne dara da caa baaxul waaye da lay gëm loo neen matière ba da nga ko war loo xam ne nii dañ ciy liggéeyal suñu borom discours lay doon boo xam ne nii dafay gëm universalité universalité mooy li suñu daam doon wax léegi maanaam yow mi koy wax am na foo dëkk am na foo cosaanoo am na moo am na làkk booy wax waaye war ngaa bàyyi xel ci ne la ngay wax war naa doon loo xam ne nii làkk bu ñu ko mën di tekki ci àdduna bi boo foo ko mën di yóbbu ci àdduna bi julli yëfa nekk daañu ko mën a jariñoo mooy bul gëm li ñuy wax local maanaam man daal sama ñoon rek laay waxal déedéet jàppal ne booy wax maanaam mbooloom àdduna bépp ngay waxal waaye rawat nag mbooleem yëpp ñu ne ndax lislaam ñaari mbir def ci am natiiru woote lislaam lislaam du woote boo xam dañu am araaba ko moom wala pe waa penkoo ko moom wala yu mel noonu wala xeet sàngam wala région sàngam ñoo ko moom waaye woote la boo xam ne nii bu universel la àddina bépp ko moom gis nañu itam nag ne bu kenn jàpp ne fi mu nekk nii mën ngaa beddi sa bopp ci àdduna bi àdduna bi ñu nii jamono ñi toll nii kenn mënu cee beddi sa bopp moo tax lépp looy def wala nga di ko wax bàyyi xel ne yàgg àdduna bi yéen a ko séq fi mu nekk nii ku jàpp ne mën ngaa tëj sa jàkka wala nga tëj sa classe wala nga tëj sa barab ba nga nekk toog fa say dongo wala say nit di waxal ak ñoom la la neex nga wax ñu di kese jàppal ne boo koy wax ñeneen na nga koy dégg te it jàppal ne bis ñeneen nga koy dégg ñeneen koy dégg seen réaction de ko xaar kon gëm ne àddina bi la ñuy waxal lu ci am solo kon nañ gëm ne am nañu ñuy waxal ñun waaye nag ci biir ñuy waxal dañ ciy jaare waxal àddina bi wax ak bi ñëpp ñëpp discours lay doon boo xam ne dana sukkandiku ci démb ngir tabax sub ngir tabax ëllëg waaye nag ñu bañ a tëj suñu bopp ci démb rek loolu def naa waxoon nañ ko léegi xëy na bi ci ëpp solo nag mooy war naa sori lépp luy teengal ak ëppal ci diine discours bu ëppal bu teengal nañ ci bàyyi xel ci ne li muy yàq ci diine moo ëpp li muy def kon discours bi ñuy séntu ne moo war a nekk kàddu diine gi day nekk kàddu goo xam dafay digg doom dafay équilibré mooy dafay jël adopté méthode boo xam mooy jàppandal ak yombalal nit ñi ak xamal leen ne yëf yi du lu ñuy teengal du lu ñuy taral ndax yow salaasam noonu la doon jàngale moom discours bi noonu amoon ndax ñëw nañu wax ne nee na daana jàngale ne bu ngeen di wax ak nit ñi dee leen yombal mbir yi te bu leen ko jafeel waxuñ na nga yombal ko moom mu ëpp waaye daal bul jafeel taral nit ñi ba seen dund nga bëgg koo xajamal ci kaw taral daal ne na ngeen di bëggal nit ñi te bu leen leen foñ lool na ngeen di wax nit ñi lu leen di xemmeem loo te bu leen di wax loo xam daf leen di dëdduloo li ngeen di waxtaan <laughs> loolu nag defe naa ne lu am solo ndax jamono ji ñu toll nii dañoo jamono joo xam ne nii daanaka nit ñi day mel ne xaraam ak sawara moom lañ gën a ban wax ci dagan ak àjjana li ñuy dugal ñi sawara daa bari lool te ñuy dugal àjjana néew lool am na kilifa gu wax nee na man li ko jaaxal mooy ñu bari dañuy yóbboo nit sawara te boo xam ne kenn mën yóbbu nit àjjana bu fekkee mën ngaa dugal nit sawara kay war ngaa mën a dugal nit àjjana kon xëy na loolu waxin la rek waaye daal na nekk discours boo xam ne daal danay xemmem loo waaye du foñ loo nit dana yo dana jàppandal waaye du jafeel du taral du teengal loolu daal bëgg nañ ko ci su fekkoon ne nag kon bëgg nañoo tënk ci melokaan yooyu dañuy wax ne discours diine ji bi ñuy séentu war naa nekk discours boo xam ne nii day wax ak nit ñi ci seen quotidien li ñuy dund di ko dund day wax ak ñoom fañ ca war a teg seen tànk di leen proposer ay solution ci li ñuy dund gannaaw bu mu defee diagnostic am leeral xam li xew mu ne leen fii ak fii ngeen ciy teg seen tànk teg mentalité ñu koy déglu waaye doon discours boo xam ne nii day répété rek ay baam ay kàddu yoo xam ne foo dool di ko répété te di jur lu mel noonu dañ ci bokk tànn na ñu koy def waajal leen former leen bañ xam naka ngay waxee mbooloo te booy waxee mbooloo mi danga nga moytu xuus ci loo xam ne nii mën naa sot diw ci sawara yi muy gën di tàkk wala mu nekk loo xam dafay xëcc nii jëme leen ci jëfandikoo xiis mooy violence wala ak coxarte wala muy doon loo xam ne dafay indi anarchie te mooy fawda lu jaxasoo ci biir mbooloom loolu kuy def discours boo xam ne da koy jàll ci turu diine war ngaa bàyyi xel ci ne diine nanguwul lu mel noonu discours diine warate doon discours boo xam ne dafay indi ay lu mel ne ak mbañeel wala yu mel noonu ci biir nit ñi war nañoo bàyyi xel tam ci ne am na lu ñu wuute ñun ñëpp waaye nag gannaaw bu ñu wuutee ñun ñëpp am na lu ñu boole ñun ñëpp na gën a sukkandiku ci li ñu boole te gën a néewal li ñu waxtaane li ñu wuutale ki koy def tam war naa fexe ba bu mu dugal ak fanatisme fanatisme mooy farfarloo bu jéggi dayo farfarloo bu jéggi dayo ci moom mbooloo mam bokk wala mësa bëm-gëm wala yu mel noonu nga fanatiste ba fanatique yi ba tax ñeneen ñi doo leen jox cër bi nga leen war a jox wala nga sax nga bëgg leen effacer ci yëf yi loolu tam kuy def discours ci diine ji war na ko moytu war na ni sàmmonteeg waxtu discours bi warut gudd benn guddaay warut a gàtt tam genn gàttaay war ngaa fexe ba sàmmoon sàmmanteeg temps wax bu mu nekk lu gàtt lool bu mu nekk lu gudd lool bu mu nekk gudd ba ki lay déglu ñi lay déglu ñëpp dañuy mujj yokkat ci déglu bi waaye tam bu mu gàtt nag ba tax la nga waroon wax doo ko wax la waroon a leer du leer loolu defe naa ne war nañ cee bàyyi xel war na na fexe itam ba discours bi buy jàll bu nekk nekk benn tomb nga xam ne yow li ngay wax lépp dafay dugg ci biir tomb boobu ndax tomb yi bari yu jaxasoo léeg-léeg day indi jaxasoo ci biir discours moo tax discours bu nekk war nañ ko wutal benn tomb bu ko dee tomb boobu koy joxe nga respecté ko ba bu ko génn benn côté yam ci yaakaar naa bu ñu jëloon ku mel ni si Abdou Khadir ba tey dolluwaayam ci discours mën nañ cee jàngee ci moom lu bari moom discours am yi ci baree bari benn minute ñaari minute waaye boo fi ne benn minute ñaari minute bi wax boo ko doon déglu mën nga cee jàngee loo xam ne nii mën nga cee toog yow di ci wax ñaari fan jeex ndax ay kàddu lay doon ay baat yu tënku te day leer nag baat bi day tënku ba noppi leer ba noppi du jël temps loolu defe naa ne lu war a gën a bàyyi xel la ci yëf yi kii waxtam war nay tànn baat yi muy jëfandikoo kàddu dañ koy tànn baat dañ koy tànn du jàggi ne baat bu la neex rek jëfandikoo dëgg la wolof nii la koy waxee waaye comme ñun ci ay teggin moo tax duñ ko waxee noonu ci wolof defe naa ne booy wax war nga defal nit ñi war nga see bàyyi xel yu mel noonu léegi ñu ne jàpp na léegi jaar ci digg bi léeg-léegi jaar ci digg bi demee noonu war ngaa mën a leer li nga wax leer nañ ba noppi nga waddu baat yi nga xam ne nii moom ngay jëfandikoo kon nit ñi war nañuy bàyyi xel ci baat yi ñuy jëfandikoo lépp loo xam ne nii xeetu reetaan nit la booy def discours na fexe ba génne ko ci lépp loo xam ne nii day wane sa bopp ci biir discours bi lu mu gën a néew moo gën a baax moo tax dañuy wax ne la képp koo xam buy wax na man man rek nga dégg ana ana nee nañ ñi lay déglu maanaam bu la ko waxutam soof nga leen bu yàgg koo xam lépp loo xam ne man sa man lépp ci boppam la koy delloo dañuy wax ne nit bu koy def mbooloo ma toog di la déglu jàppal na dañ laa joxub cër waaye na nga war ne moom la ngay wax duggatu leen baax moo tax lépp luy wane sa bopp ci discours bi di la yëkkati wala yu mel noonu dee ko moytu donc bu ci suufee sa bopp nag kenn wax na ngay suufee sa bopp nit suufeel boppam waaye lépp luy wane damu ak wane sa bopp dee ko ca bàyyi xel am na tam façon jumla maanaam phrase yoo xam ne ni moom lañ bëgg nga koy ëpp loo koy jëfandikoo am na phrase yoo mooy nga kon waxe ko noo xam ne nii da nit ñi dañuy gëm ne yow li nga wax kat gëm nga ne mooy dëgg waaye bàyyi nga xam ne ñun tam ñeneen ñi tam li ñuy wax mën naa nekk lu wér yooyu kon yenn la ci xam war nañ ko sàmmonte ak moom kon daal xam naa suñu daam loolu yenn la ci yiñ ñu a jukki ci kàddu gi muy tomb bu am solo boo xam ni nga ko waxee tomb bu yaatu la am na solo tam ñu waxtaane ko ci jamono ji ñu toll nii ci fi askan wi toll mbooloo mi dundi ni fi ñu toll waaye tam naka la ñuy xoole suñu ëllëg ba mën koo tabax façon boo mooy gën fii ñu toll nii ndax discours kat mbokk na ci jumtukaay yi nga xam ne nii mag ñëpp dañ ko daan jëfandikoo xalaatkat yu mag yi moom la daan jëfandikoo yonent yi moom la daan jëfandikoo réformateur yi moom la daan jëfandikoo ñu di beesal ñëpp discours lañ daan jëfandikoo wala bokk bokk na ci lañ daan jëfandikoo ngir seen bataaxel boobu ñu mën koo jàllale ci ñoom nañ dellu ci yonent bi alayhi salaam xutba yi mu daan def jël xutbat xajatul wadaa nga mën caa jànge lu baree bari xutbat Abu Bakrin Sadiq nga mën caa jànge lu baree bari Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ñaata xutba la def nga mën caa jànge lu baree bari képp koo xam nga looy défendre ci sëg dund rek daanañ jëfandikoo discours ngir mën koo jàllale waaye nag ñu bàyyi xel am na ñaar yoo xam dañ koy dañ koy jaxasale léegi te mu wuute lool discours daa wuuteeg sànni kàddu sànni kàddu lu ñuy sànni moom ñaareel la ci gën génn na ci noo ngi jégglu wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ bi dëgg yàlla waxtaan wi leer na am na njariñ jànge nañ ci lu bari liñ ci mën a tënk rek mooy kon ndekete kàddu gu ñu askanale diine ki koy jëfandikoo mooy ku am xam-xam te di ko jëfe te xam fi jamonoom toll te muy wax ngir yokkute diine ak yokk yokkuteg société bi muy dund kon day mel ne waxtaan wi loolu la tënk yim ci jox yépp weesuwul ne ki war a wax mooy ku am xam-xam te di ko jëfe bàyyi xel société bi muy dund te diine tax koo wax waaye na xam naa day mel ne li ma am ci waxtu ñeenti minutes rek la bëri woon na lu ma ci mën a commentaire bi may njëkk commentaire may liñ naan alxitaabu diini discours nitug diine loolu day mel ne tubaab yi napp gi ñu napp ci wàllu xam-xam mujj na ba ñun baat yi bu ñu koy jëfandikoo sax duñ ko bàyyi xel nitug diine kañ la diine tàqalikoog àdduna bañ naan nitug diine fii nitug àdduna fële kon day mel ne lu diine ani daw la ñëw na te yëguñ ko kon kiy wax nitug diine mooy koo xam ne ni problème yi société da koy xam actif bokk ak nit ñi li ñu dund waaye nag am xam-xamu diine boo xam ne buy wax ak ñoom dana mën a xam lu ñu wax ak ñoom waaye léegi dañ naan ñu nitu àddina yi ñoo nekk fii nitu diine yi ñoo nekk fi yonte sallallahu alayhi wasallam moo nekkoon nitu diine koo xam ne ni lépp la dirigé woon kon trois minutes ma dese léegi problème bi ma ci gis ci wax ji mu wax problème bi nga xam moom la ñuy jànkonteel mooy problème de communication ak li ñu wax problème de positionnement mooy mushkilatu ma mawaqi mooy kiy wax am na lu ko tax di wax intérêt boppam bu dee intérêt boppam tax na koy wax rek wax ji dana yàqu kon looloo tax ma ne solo si waxtaan bi mooy boroom xam buy jëfee xam-xam te diine tax koy wax tam xam bi muy dund ndax buñ fàtt ne société bi ñuy dund société la boo xam technologie bi dafa avancé kon war nañ koy bàyyi xel buñ doon waxee ci benn média war nañoo xool boo xam média bi ndax am na impact ba tey wala déet ndax war nañ koo soppi wala de soppi kon mooy lii sëñ Assane sëñ Fall wax rek mooy discours diine ci diine nga koy balluloo waaye nag danga koy méngaleek jamono loolu li ma ci njëkk a xalaat mooy tasaare na xam-xam boo xam ne ne may na ma ma xalaat ne am na lu ñuy wax stratégie de communication kon këru diine war nañ ko am stratégie de communication mooy yan jéego laa war a teg ba li may wax mu àgg barab sàngam nit ñi mën koo dégg stratégie moom ku ne dana ko man waaye stratégie boo gis day am plan opérationnel nan la mën a ame ni mën a amee yomb na naa jël suñu dëkk bii ñu ne stratégie bi njëkk a def dañuy def page Facebook boo xam ne nii waa Touba ñoo ko moom ndax bu dee da ngay wax ak nit ñi bul fàtte ne ñu bëri Facebook la jëfandikoo am na ñoo xam ne YouTube la ñuy jëfandikoo am na ñoo xam TikTok la ñu jëfandikoo waaye da ngay gis koo xam ne nii dañ ne ko yow nitu diine nga day mel ne WhatsApp jëfandikoo ko sax wala TikTok dara la te fekk mën nga koo jëfandikoo loo xam ne nii danay jariñ nit ñi ngay waxal kon war nañoo mën a officialiser mbir yi wut page officielle yoo xam ne nii ci murit gi lay dellu nga xam ne bu ñu bëggee communiquer dañu ko jëfandikoo waale boole koog yañ daa jëfandikoo loolu loo xam ne ni war nañ ca mën a xalaat baneen bi tamit mooy moyens yi ñuy defee xitaab diini sëñ Fàllu ànd nañ ci wax jooju mooy conférence conférence baax na xëy na defin wi mënees na koo soppi ndax ñu bëri fi ne boo defee conférence ba pare bu ñu paree neex na la nga wax lépp fàtt nañ est-ce que amul yeneen moyen conférence yeneen beesal yu ñu ci mën a dugg yoo xam ne nii bu ñu ko defee nit ñi dañ ci gën a mën a jariñ am na xëy na waxtu yi da ko dul maye am na lu ñu naan euh, débat d'idées interactif li ñu naan munaaxasha jamaaiya tafaaxuliya loolu saa boo ko defee nit ñi faw dañuy bàyyi xel li ngay def ndax boobaa du nekk kenn rek ay wax ñaar ba ñett ba ñeent ñooy wax kenn ku leen di wax sa xalaat ñuy weccent boobaa nit ñi faw ñu leen di topp yooyu ay wax kon li ma bëgg a wax mooy mbir mi diine la waaye dees koy yeesal li ngay def tey bokkut ak la ngay def ëllëg te nag waaye ñu bàyyi xel ne discours yu diine nag faw bës bu set da ngay dellu ca diine mu nekk cëslaay yi misaal mi rek mën nañ koo jël ci suñu yaakaar gi nekk suñu ginnaaw Cheikhul Khadim bu daa wax lépp la daa bàyyi xel léeg-léeg day nekk day ñëw ne seex si rek laa bëgg a waxal ndax xam na ne li muy wax nii seex si rek ko moo leen intéressé boo lëgee naari gànnaar ya fa nekk boo lëgee waa Barzak boo lëgee soxna yi boo lëgee gone yi kon kenn ku ne moom xam na la mu war a wax ak yow ak jamono ji mu wax ak yow waaye nag ci biir loolu dañ naan juróom poñ yi ma fi waxoon xam naa lépp du ko mën a kii ndax waxoon naa ne képp kuy wax war ngaa bàyyi juróom-benn poñ yi muy jamono ji ngay waxee jan jamono la ndax metti na wala méttiwut nit ñi xam nañ wala xamuñ ndax tañ tal nañ li ngay wax wala tëluñ muy benn ñaareel bi yow miy wax ndax war ngaa mën a wax wala déet ñetteel bi ki ngay waxal ndax dana ko dégg wala déet ñeenteel bi mooy ndax am na lu leen jokkale ba mu lay mën a suivre ak yow mi koy wax ndax yaa ngi jëfe li ngay wax wala déet kon contexte la kon nit ñi war nañuy bàyyi xel loolu fexe ba lëkkale lépp ci genn kàddu bañ bàyyi ku neex wax ndax ku neex wax buñ ci duggee ñay tegtalu dañuy tegtalu ca wax jooja te doo leen mën a balaame ndax ñi wax bëri na fi neen fenn fu ne ñu ngi fay defee conférence di fa def ay webinaire di fa def lu ne am na ñoo xam bokkuñ ci yoon wi ñu ngi leen di suivre jàpp ne lañuy wax dëgg la te dara du dëgg te responsabilité ci ñun ñi lay delluwaat exemple bu mujj bi ma ciy joxe mooy ci màggalu Tuubaa gi conférence bi ma fi doon def fii te ay américains ñëwoon fa am na lu ñu ma wax lu ma marqué ndax dañ ne ma ñun de dañuy suivre lu bëri waaye lu bëri duñ ko mën a xam ndax wolof lañ koy wax waaye baat bi mu ci teg moo ma gën a yéem mu ne ma ñun jàpp nañ ne sëñ Tuubaa murid rek moomuñ ko li ma bëgg a wax mooy waa Tuubaa te kooku fi mu ne nii discours bii sëñ Assane sëñ Fall doon def bu paree xam nga da koy yónnee ku dégg wolof mu leeral ko ko kooku dégg na àngal da koy bindaat yónnee ma ko nga xam ne ñoom ñor na leen waaye amuñ ko leen jàppale ndax ñun sóoraale wuñ ñun ci ci li ñu wax te sëñ Tuubaa da doon yaa ahla barri yaa ahla bahri ñëpp laa woo ginnaaw ñëpp la woo ñun day mel ne ba tey bu ñu wax waa Sénégal la ñu waxal ak Gambie ak Mali est-ce que ñu ngi bàyyi xel ña nekk Suède yaakaar sëñ Tuubaa ña nekk France yaakaar sëñ Tuubaa ña nekk États-Unis yaakaar sañ Tuubaa loolu ay xalaat la yoo xam ne war nañ ko andiwaat li tax ma koy wax nag sëriñ bi dafa ñaan ci matlabul fawzayn ne sama dëkk bii na ko def dëkk boo xam ne ni boroom xam-xat yi dañ ciy xalaate di ci génne yu bees tàq loolu tax mu ne wa bi xatti anchitil ulama sama mbind mii defal boroom xam-xam ñuy dajaloo di ci di leen ci sawarloo ñu ciy xalaat di génne yu bees tàq yoo xam ne ni li nga xam ne moo taxoon ma ñëw indi ko mu message yonte sallallahu alayhi jamono du ko weesu mukk day dëppook jamono ju loolu nag kon li ma waxoon rek commentaire yi bëri na mënuma ko àggal waaye daal ci euh, tënk rek yëf yi am na solo lool war nañuy daje di ko waxtaane di ko gën a jëmmal tey xalaat ne ñun wax dëgg yàlla fii ñu toll dañoo war a fexe message bi nag génn te tubaab yi nag ñi ngi gëstu seeni gëstu nag lépp luñ ci gës bari na yoo xam ne ni ay terme la yoo xam ne tubaab yi ñu koy wax te fekk ci sëñ tubaab la jiitoo démb rek maa ngi koy wax ci conférence bi may def Daaru Karim lu mel ne développement durable lu mel ne gouvernance lu mel ne euh, euh, sécurité alimentaire nga xam ne sëñ Tuubaa ba muy weesee sécurité alimentaire souveraineté alimentaire la ne te fi ne ab tubaab bu ñëwoon ne la waa yow développement durable lu sëñ Tuubaa fekk yow fataawaay yi rek ci ngay ne lii diineem imaam Malik nangam doo ko ci mën ñun waroon nañoo fekk ñu gëstu ci ba kaneen bu ñëwee buñ ko ko waxee dana fekk mu nekk njàngalim sëñ Tuubaa njaareen jii rek boo ci duggee développement durable kese la sëñ Mbàkke bu so wax na ci lisaanul xaq yatakallam lettre ba mu doon bind tentano tentanoon yooyu yëpp ay xam-xam la yoo xam ne dañoo war a toog waxtaane ko bind ko nga xam ne ku ñëw da nga am fooy waaye nag ñu bañ a def koo xam ne ni saa boo ñëwee fu la neex gëstoo dañ laa war a yóbbu fenn foo xam ne ni fii daal mooy kàddu gi nga xam ne moo valable fa nga war a jëlee la ngay kii waaye du fu la neex jëlee xam naa dañ koy yemale foofu euh, commentaire rek la woon sëñ Fallou ñu ngi lay sant bu baax jariñ nañ ci xam-xam bi ñu ngi ñaan suñu borom lii ñu fi wax mu nangu ko dëppale ko ngërëmul sëñ tubaa tam jariñ ñu bëree bari nekk tàmbali yeesal ay liggéey yeneen ngir yëf yi gën a mën a jëm kanam ñu ngi ñaan sëriñ tubaa gërëm ko te nangu liggéey bi te santuñu ci te barkeel ko barkeb sëriñ tubaa jërë ngeen jëf